merci beaucoup euh, Pape Sidi kon nag ci euh, fàttali rek mooy euh, cinq chiffres yi nga xam ne daan nañ koy annoncé 143 cas sous traitement waaye nag bu ñu seetloo courbe bi li nga xamante ni moom mooy chiffres yi autorité di joxe fan yëpp mooy am na benn kon brin d'espoir boo xam ne mën nañ ko cee jàngat ndax boo xoolee li ñuy woowee cas importé ñu bëri ci fan yi ñu génne dañ ci doon am njàqare ne pourtant tëj nañ li nga xamante ni moom mooy frontières yi lan moo tax ñuy continuer di am ay cas ay cas importé ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi rawatina docteur Abdoulaye Bousso di directeur bu COUS plus daal dinay woon génn am explication yoo xamante ni daal nañ ko ci joxe ndax yàgg nañ dégg ñu naan période d'incubation bu feebar bi di coronavirus day dem ba fukk ak ñeenti fan kon bu fekkee dañoo tëj frontières yi le 20 mars mën nañ dem ba le avril di jot ay cas importé waaye seetlu nañ ci ñetti fan yi ni ñu génn wala ci ñaari fan yi un cas importé ngay dégg démb un cas importé la ñu amoon barki démb benn cas importé aussi la amoon kon ci côté ne aussi ñu bëri dañ ko daan redouter muy cas communautaire yi boobu aussi am na ab tan boo xamante ni daal dañ ko ci nemmeeku mu mel ni kon force yi fu ñu ko gën a euh, daal di concentré moo jëm ci wàllum cas contact yi nga xam ne ñu ngi leen di suivre cas contact yooyu nag xawoon na bëri ñu ngi doon wax ni c'était plus de 1560 cas loolee euh, président Macky Sall moom moo joxe woon chiffre yooyu ci jour bi nga xam ne ci la doon kon euh, déclaré état d'urgence bi assortir ko ak couvre-feu léegi nag mun nañoo wax ni cas contact yi xanaa war na wàññeeku du ñàkk si kanam incha allah euh, kilifa gi bu ñëwee taxaw jano ak askan wi euh, dina ci indi ay leeral ndax 1560 cas il y a une semaine ak léegi war na wàññeeku waaye tamit bu fekkee wàññeeku na ci euh, nombre 1500 yooyu noonu du ñàkk am na feneen fu muy yokkee ndax booba léegi yéen a ngi dégg ne am na ay cas positif yu bees yoo xam ne mu ngi am te cas positif nag fu mu amee rek du ñàkk cas contact mu daal di fay am ndax képp ku positif rek nit ku mu daal di jege kooku dañu koy considérer comme cas loolu yëpp incha allah si kanam ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi daañu ci gën a andi waaye jëm lu jëm ci wàllum paj mi ndax ñu ngi doon wax mbirum chloroquine ne seetlu nañu ni ba ñu daal di wax mbirum chloroquine boobee ba léegi professeur Moussa Seydi génn ne moom da koy ci traitement bi nga xamante ne moom lay injecté euh, ñi amee feebar boobee gis nañ ni dafa mel ni nag tan am na ci ndax ñu ngi dégg ay 13 cas yoo ne dañoo guéri am na ay 12 yoo xamante ne dégg nañ ko démb déggaat nañ ñeneen ñoo xamante ne ñoom it wér nañ ba daal di ñibbi seen kër ba boo ko xayma mu nekk ci 45 cas guéri bi donc loolu lañu yëpp xam naa incha allah euh, mu nekk ay brin d'espoir yoo xamante ne bu fekkee dañoo wax euh, de l'autre côté information yoo xamante ne day xaw a tiital askan wi day tax nit ñi gën a defaraat seen toogaay day baax aussi ñu génnee xibaar yi nii nga xamante ne euh, day firndeel liggéey bu am solo bu rafet boo xam ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñu koy amal ñu ngi may signaler ni kilifa yi daal nañuy taxaw kon nañuy dem rejoindre waa ministère de la santé ñu dellu si waat incha léegi-léegi ci débriefing bi. 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Cinq sont revenus positifs. Il s'agit de deux cas importés et de trois cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, j'informe que 10 patients hospitalisés sont guéris aujourd'hui et sortiront dans les heures qui suivent. À ce jour, 195 cas ont été déclarés positifs. Malheureusement, un évacué Donc, on a 138 patients à ce jour en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des recommandations et de toutes les mesures de prévention individuelle collective. ñu lire leen communiqué bi joxe tey situation bi tey alxames ñaari fan si weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi si téeméer ak ñaar ak ñaar ñett téeméer fukk ak juróom-ñaari test juróom ñoo si positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé léegi am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk juróomi cas fii ci senegal juróom fukk ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jële ak benn cas bu ñu évaluer bu ñu évacuer may yëgal ne fi mu nekk ni téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk si hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën ko gañe Mesdames, Messieurs, chère euh, population du Sénégal et chers euh, étrangers qui sont parmi nous ici au Sénégal, le 2 mars, vous vous souvenez, au Sénégal notre premier cas de Covid-19. Aujourd'hui, 2 avril 2020, donc un mois après, il m'est apparu nécessaire de partager avec vous les dispositions ont été prises les actions majeures qui ont été cadre de la riposte au Covid-19. À cet effet vont à cette tribune le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Le docteur Alpha Sall, l'administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar. Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fan. Le professeur Mamadou Diarra Bey, directeur du SAMU national. Leurs communications porteront essentiellement sur la coordination des opérations de riposte, la détection au laboratoire et la prise en charge des cas confirmés. Cet exercice sera mené tous les mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Il s'agit donc d'une évaluation à mi-parcours. Avant de donner la parole à mes collaborateurs, je voudrais saluer le travail remarquable que les personnels de santé sont en train d'accomplir et leur exprimer mes forts encouragements. Je voudrais également saluer le professionnalisme de la presse sénégalaise, qui est à nos côtés depuis le début de l'épidémie. J'exprime à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements et mon soutien sans, pour son soutien sans faille depuis le début de cette épidémie et en mon nom, le personnel de santé lui exprime toute sa reconnaissance. Je remercie mes collègues du gouvernement ainsi que l'ensemble des Sénégalais et des partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte je vous de votre attention ma tënk li ma wax léegi rek ci wolof 2 mars 2020 la ñu amoon fii ci réew mi cas bu njëkk bi ñu am ci covid boobu ak léegi bés bu jot ñu taxaw ak yéen pour jox leen situation wu bés bi di ko def ak leer di ko def ak dëgg di ko def pour que dara bañ leen ci ëmp booboog léegi nag def nañu weer parce que tey la le 2 avril 2020 ma ànd ak ñenn ñi gën a ràññeeku ci ñi ci liggéey ñu war a ñëw taxaw fii wax ak yéen docteur Ablaye Bousso bi xamante ne moom mooy directeur bu centre des opérations d'urgence sanitaire mooy njëkk ñëw waxtaan ak yéen ci mbir bi bu paree docteur Alpha Sall directeur de l'Institut Pasteur de Dakar moom tam dana ñëw waxtaan ak yéen ci mbir mi ci li ko jëm li jëm ci moom bu pare professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse de l'hôpital Fann dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci paj mi bu paree professeur Mamadou Diarra Bey directeur SAMU national dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci prise en charge ci wàllu réanimation ak lu ci jëm seen communication nag ñooñu li ko dox a jog mooy leeral bu leeral lu bëri parce que def nañ weer dafa jot ñu def lu ñuy wax bilan à mi parcours parce que weer wu jot rek bëgg nañ yéen waxtaan seeg yéen di ñaan dëkk mbir mi gaaw fi yem pour que ñu delluwaat bu baax a baax a baax ci suñu yitte ci suñu tayaayu xel avant ma leen di jox kàddu gi dama bëgg taxaw bu baax encourager leen personnel de santé bi parce que li ñuy def wax dëgg yàlla sagal nañ réew mi ñu ngi leen di encourager di leen wax ne président de la république mu ngi leen di féliciter di leen encourager may remercier di féliciter la presse sénégalaise parce que mbir mi ba mu commencé ba léegi wane nañ ci professionnalisme responsabilité ak xarañ bu wóor ba tey dara umpul sénégalais yi ci li ñuy liggéey loolu laa ne woon danaa leen ko wax di leen gërëm encore une fois di demander le docteur Abdoulaye buso directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire mu ñëw taxaw waxtaan ak yéen ci wàllu liggéeyam Merci beaucoup, euh, le ministre. Donc, à la de Monsieur le la Santé, euh, je vais entrer de la situation épidémiologique. Donc, comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris, donc dans nos différents centres de traitement. Donc, le service de mal infectieux de l'hôpital de Fan, l'hôpital euh, d'enfants de Diamniadio, et au niveau de Touba. Et nous avons eu à déplorer un décès et nous avons un, un malade qui a été transféré en France. Euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, c'est que aussi en analysant les chiffres, nous avons au moins 40% de cas importés dans euh, le, le total des patients positifs. personnes qui ont été euh, infectées et qui ont importé la maladie. nous avons aujourd'hui de patients euh, dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasardeux de, donner une date pour le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingence qui ont été euh, par le président de la République du Sénégal avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, euh, la suspension des enseignements, euh, l'interdiction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, euh, nous, sommes, euh, nous allons avoir à la fin de la semaine, nous serons à 14 jours après la fin de la fermeture des frontières, nous devrons commencer à ne plus avoir normalement de cas importés. Si on voit associés aux cas secondaires, constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraît euh, bas, très très importants euh, à partir la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens euh, euh, pour nous. Donc aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu le, la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique euh, au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur les, euh, toutes les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie parce que ces peuvent être très très déterminants. Et ces malades restent toujours répartis dans les six régions dont on avait, parlé, la région de Diourbel, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Ziguinchor et la région de, de Fatick. Nous avons à ce jour sept sites où des patients sont actuellement en train d'être euh, pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fann, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, euh, de Dalal Jamm, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte qui commencé à recevoir des patients Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguinchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, euh, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc nous avons encore une marche de, de, de lits pour les patients. En lit de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fan est déjà euh, fonctionnel. Au niveau du centre de chirurgie cardiaque, nos collègues vont y revenir avec déjà en place. Et de chaque sites de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être euh, disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement euh, les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. E et même des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer euh, ce stock et aussi rassurer que certains ont question beaucoup sur les tests. Est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests. Et ce, ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut Pasteur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts qui deviennent suspects, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes, pour le moment, pour lesquelles nous recommandons la, euh, le diagnostic au laboratoire. Donc pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut Pasteur. L'IRSF également est, en train, est, en train dans le, est entré dans le système et couvre la région de Thiès. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de, le, de, de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler et très prochainement, je pense que dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau de, des Iguinchor. Pour information aussi, on, a, on épilogue beaucoup sur l'âge de nos euh, vu, les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc il est important de pouvoir je peux dire, protéger ces, ces, groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport vraiment très parce que les contacts euh, des cinq déjà que nous avons eus euh, aujourd'hui sont en train d'être euh, recherchés et d'être compilés. Donc nous avons 2888 contacts depuis le début et sous Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà euh, confinés dans des hôtels et c'est extrêmement important cette euh, proportion de contact à suivre parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que c'est... Si elles tombent malades, ils sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant qu'à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé. Et, et, il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales, parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux qui font les transferts des patients, c'est eux qui pour la plupart, et c'est le suivi des Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le mais également au niveau de la coordination et même au niveau du terrain des autres services, les autres ministères, les forces de défense et de sécurité, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la Santé. donc ma tënk ko ci wolof di wax ni comme ni ko suñu euh, ministre waxee fi mu nekk nii am nañ téeméer ak juróom euh, ñeent fukk ak juróom euh, malade yoo xam ne testé nañ leen positif Sénégal ci ci diir ci groupe boobu am nañ ci juróom fukk ak juróom yoo xam ne wér nañu am nañ ci kenn koo xam ne yàlla jël na bakkenam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana am nañ kenn koo xam ne moom dëkkam muy réewu France daf ko jël yóbbu ko tugal donc am nañu téeméer ak fanweer ak ñett ñoo xam ne ñi ngi leen di faj si biir si biir dëkk bi et suñu xoolee ci loolu ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew bu ñu jëlee téeméer euh, euh, ñeent fukk yi ñoom ñoo jógee bitim réew indi feebar bi si téeméeri aussi bu ñu jëlee juróom fukk ak juróom benn ñoo ñu ñooy ñi nga xam ne ñu jóge bitim réew indi feebar bi ñoo leen wàll feebar bi am nañ bu ñu jëlee téeméer ñeenti ñi ñoo xam ne ci biir dëkk bi la ñu amee feebar bi te ba léegi jàppaguñu fan la ñu amee fan la ñu la leen feebar bi taqale donc bu ñu xoolee gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew ñëw ci dëkk bi indi feebar bi ak ñi ñoom ñi ñu wàll bu ñu leen dajalee dina def euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-benn donc lu takku la ci wàll boobu ba tax na am nañu yaakaar ak euh, mesures yi nga xam ne monsieur le président de la plus jël na ko ñu tëj frontières yi euh, arrêté écoles yi arrêté manifestation yi que loolu dina dinañu mën a gis effet yi fii ak euh, semaine prochaine incha allah parce que dina war a war nañ teg fukki fan ak ñeent après bu ñu tëjee frontière pour ñu mën a gis parce que si diggante bi ñi nga xam ne tukki nañ ñi ngi ci dëkk bi mun nañu feebar ci ci diggante bi donc foofu la ñu mën a xam euh, fan nañu feebar bi di jëmee maintenant bu ñu ko jàllee li am solo mooy ñeent ñi may wax ñi nga xam ne ci fa euh, ci téeméer bu ne ñoo xam ne ñi ngi ay contact lañu xeex di di di gën a loolu rek mun na am feebar mu law mais am nañ yaakaar vraiment ak décision yi ñu jël ministre de la santé taktal yi mu joxe am nañ yaakaar ci loolu war nañ ko mën a téye ci wàllu gox yi am feebar yi ba léegi soppeegul am nañ juróom benn gox yoo xam ne am nañ ko muy Ndakaaru muy Thiès muy Ndar muy Njaareem muy Ziguinchor ak euh, muy Fatick te ci aussi fi nga xam ne lañuy ñuy fajee maladie am nañ ci juróom-ñaar ci hôpital Fann am nañ ci benn euh, hôpital d'enfant Albert Roy euh, de Diamniadio bi nga xam ne extension bi am nañ fa benn hôpital Dalal Jamm am nañ fa benn centre hospitalier de Malte am nañ fa benn Touba Ziguinchor ak saint fu ne am nañ fa benn donc foofu fi fi may wax ni fu nekk am na malade yu fa tëdd yoo xam ne ñu ngi leen di faj ci wàllu sauvetage nag bi nekkoon réanimation amatuñu fa benn malade bu fa nekk ci wàllu lal yi parce que ñëpp dinañ xalaat ne effectivement nit kaa yaa ngi bëgg a yokku déjà ci euh, ci ndigalu ministre de la santé am nañu euh, juróomi téeméeri lal yoo xam ne disponible na pour ñu mën a xool maladie donc euh, anticiper nañ ci loolu te lalu sauvetage as ñu ngi koy yokk ci gox yi nga xam ne am na centre de de traitement. ci wàllu jumtukaay yi nga xam ne moom la personnel de santé bi di jëfandikoo pour di toppatoo maladie loolu aussi. Euh, egg na parce que région bu nekk jox nañ ko matériel bi nga xam am na nguur bi jënd na ay matériel am nañ aussi ay ndimbal yu ñuy jot ci ay partenaires donc euh, ministre la santé joxe na ndigal ba nga xam ne lépp lu wàllu ci équipement yi egg na ci ñoom suñu centre de traitement yi aussi lépp lu war ci jumtukaay am nañ ko dem nañ ba am nañu réserve boo xam ne denc nañ ko suñu service centre des opérations mais également ci pharmacie nationale d'approvisionnement te nguur baa ngi continuer aussi pour jëndaat yeneen équipement de protection pour mun ko garder ba nga xam ne du ñu am dara lu ñu bett. su ñu xoolee aussi ci wàllu euh, laboratoire bi donc Pasteur ñoom dinañ ci wax ñu ngi ciy jàppale bu baax ak beneen laboratoire bu ñu naan IRSF boo xam ne mi ngi ci Thiès donc ñu ngi xool nu ñuy vraiment yokkee aussi man man bi ba nga xam ne région yi gën a sori comme Ziguinchor dinañ fa mën a def euh, analyse yi bu gën a gaaw ñu am euh, jàpp nañ ni am ñaar fukki at. ak juróom ak juróom fekku at boo jëlee téeméer bu ne mën nañu juróom benn euh, euh, juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ëpp nañu euh, juróom benn fukki at nekk nañ ci fukk ak ñeent donc loolu dafa am solo pour ñu xool ko bu baax parce que ñi nga xam ne ñooy am xam ne bu yóbbu sauvetage ci at yooyu la ñu nekk surtout ñi nga xam ne dinañu passé juróom benn fukki at donc ba tax war nañu toujours bàyyi xel ci li ñi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko ci ndigal ci wàllu cat bi ci wàllu vraiment ñu xaw a sorante ba ñu góorgóorlu ci lool ba fi ak ay fan ba feebar bi ñu mun ko téye euh, ci wàllu aussi euh, feebar bi jigéen ñi lañ gis ni ñoo ci xaw a ëpp tuuti parce que bu ñu jëlee euh, jëlee téeméer jigéen ñi mën nañu juróom benn juróom fukk ak ñeent donc góor yi nekk ñeent fukk ak juróom benn donc parce que tolloo nañ mais gis nañu jigéen ñi ñoom ñoo gën a am feebar bi parce que gis nañ ñu bëri aussi nag bi amee feebar seen soxna yi euh, wàll nañ leen seen doom yi aussi te jigéen ñi ñoo ci ëpp. ci wàllu contact yi mooy ñi nga xam ne ñoo tax ci ñi am feebar bi nga xam ne dañ leen war a seet ñoom ñëpp ñu ngi si ñaari ñaari junni fi mu nekk di ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett euh, juróom-ñett yoo xam ne ñu ngi leen di topp. ci loolu am na junni ak euh, fanweer ak euh, juróom-ñaar yoo xam ne génn nañ ci suivi bi donc fi mu nekk nii am nañu junni ak euh, juróom-ñett fukk ak juróom fukk ak benn ñoo xam ne ñu ngi leen di topp te ñooñu am na ñoo xam ne déjà président joxoon na ndigal pour ñu yóbbu leen ci hôtel pour mun leen seet parce que contact yi ñuy wax yooyu dafa am solo pour ñu mu leen topp parce que bu ñu demee ba tënk contact yi. même bu ci amee ma détail ku ci feebar dina nekk foo xam ne dinañ ko seet dinañ ko mën a téye ba du mën a wàllu kenn parce que feebar bi noonu lañ ko mën a téewee il faut que ñëpp ñi nga xam ne am nañu feebar bi wala ñi nga xam ne nekk nañ contact bu mën a am feebar bi ñu tënk leen ba nga xam ne bu dara xewee rek dinañu mun jël en charge rapidement te ñu bañ a mën a wàll keneen. di di terminer rek di xool wax ni aussi liggéey bi dañ ko bokk ak ñu bëri ministre de la santé souligné na sànq. Euh, waa ñu nekk ci wérgu yaram bi te loolu dañ koy rafetlu ñu nekk ci poste de santé ñu nekk ci district de santé ñu nekk ci région médicale yi ñi ngi def liggéey bu am solo parce que ñoom ñooy dem xool maladie yi ñoo leen di seet ñoo leen di topp ñooy def prélèvement yi des fois ñoom ñooy transporter sax maladie yi ci hôpital donc liggéey boobu am na solo liggéey bi aussi dañ ko bokk ak aussi yeneen service muy les forces de défense et de sécurité waa police waa gendarmerie waa armée ñu ñuy jàppale bu baax ak yeneen ministère yi yoo xam ne ministère de l'élevage communication peut suma su ma limee jum ak yeneen partenaires aussi ñu ngi ñuy jàppale bu baax ci ci wàllu liggéey bi ba dinañ vraiment ñu ngi ñaan bu si ñëpp jàppee incha allah dinañu mën a am ay résultat yu baax yoo xam ne peut-être feebar bi dinañ ko mën a téye maa ngi terminé di jox kàddu gi docteur euh, Amadou Alpha Sall muy directeur Institut Pasteur donc je donne la parole euh, au directeur de l'Institut Pasteur le docteur Amadou Alpha Sall merci. beaucoup, docteur Boussou. Bonjour. Aujourd'hui, cela fait un mois que l'épidémie a confirmé son premier cas le mars. Il faut dire que dans le cadre du laboratoire et des tests que l'Institut Pasteur fait, le premier cas suspect a été identifié le 26 février. De... Le 2 mars a été l'identification du premier cas, ce qui la phase de préparation, un certain de cas avaient Il faut dire que depuis période, 1738 échantillons ont été testés et qui ont conduit à l'identification de 195 cas confirmés. Ces différents échantillons testés l'ont été pour le suivi de malades hospitalisés, pour les cas suspects qu'il fallait confirmer et les contacts à haut risque qui ont été détectés. depuis le début de l'épidémie, il y a en moyenne 53 échantillons qui sont testés avec un minimum d'un cas par jour et un maximum qui a été atteint à 211 cas testés par jour, échantillons testés par jour. Cela m'amène à parler des capacités de tests. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur tout bas, des tests sont faits. Depuis le 14 mars 2020, un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darukhdos de Touba pour se rapprocher d'un foyer important qui était le foyer de Touba sur les instructions des autorités de manière à juguler rapidement cette situation. Et c'est ainsi que ce laboratoire a non seulement pour la zone de Touba, mais aussi la région de Djourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Tambacounda. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Ziguinchor, où un laboratoire, l'Institut Pasteur, sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades dans le but de mieux les prendre en charge. Il est important aussi de signaler que dans la stratégie actuelle, au niveau du Sénégal, il est important d'identifier parmi les cas suspects quels sont les cas confirmés et de suivre les clusters qui sont dans certaines régions. Et cette stratégie correspond à ce que l'on doit faire dans ce genre de situation. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existantes et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas, c'est pourquoi, jusqu'à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne qui est considérée comme un cas suspect va être prélevée et son échantillon transmis pour test. Chaque contact qui est considéré comme un contact à risque va être prélevé et testé. Et sinon, c'est les malades qui sont hospitalisés qui seront testés. C'est la stratégie qui correspond à notre situation qui jusqu'à présent nous a permis de maîtriser l'épidémie. Il est important enfin de signaler que depuis le début de l'épidémie, il y a eu un certain nombre de souches de virus qui ont été analysées et que les souches qui circulent au Sénégal traduisent bien une importation de plusieurs zones avec de multiples introductions. Je voudrais finir par euh, remercier l'excellent travail d'équipe qui se fait et dire ça dans la foulée du ministre et du docteur Bousso parce que le travail qui est fait en matière d'épidémie et tous les pays qui se sont investis et qui ont eu de bons résultats ont eu cette dynamique collective, cette dynamique d'équipe qui a bien marché. Les tests arrivent au laboratoire parce que des équipes sur le terrain font les prélèvements, donnent des informations qui arrivent. Et quand ils sont faits au laboratoire, ils sont testés dans la journée et renvoyés sur le terrain. Et ce travail d'équipe est essentiel. Et je voudrais, dans la foulée de M. le ministre dans la foulée du directeur du, service, du, du, du course, euh, saluer cet excellent état d'esprit euh, pour tous les acteurs de la santé, les acteurs au niveau de, de la prise en charge et des différent pilier de la lutte ma tënk ci wolof euh, li ma wax nii ci tubaab euh, Institut Pasteur de Dakar ci wàllu test laboratoire pour saytu nagam ni ñi am na nañu feebar bi fa lañ ko féetale moom lay liggéey ci dispositif national bi ministère de la santé mettre en place li nu mën a wax mooy tey mooy weer depuis ñu cas confirmé ñu njëkk détecté ki am feebar bi mu doon le 2 mars moo tax ñu mënoo wax rapidement nag ni ci wàllu bi balaa ñu identifier feebar bi premier cas bi bi nga xam ne dañ ko doon suspecté mi ngi nekkoon 26 février 2020 boobu ba léegi nag Institut Pasteur testé na junni juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent échantillon test yooyu mi ngi ko def si ñoo xam ni dañu gis ni dañu am feebar bi ñu war leen hospitaliser leen topp ñoo xam ne dañu yaakaar ni daf dañu am feebar bi ñu indi leen pour ñu pour ñu seet leen muy lu ñuy wax cas ak ñoo xam ni dañu nekkoon contact bu jege ñoo xam ne dañu xam dañu am feebar ñu naan ko contact à haut risque bu nu xoolee liggéey boobu yépp mi ngi permettre ñu identifié téeméer ak juróom ñeenti fukk ak juróomi cas yoo xam ni tey xam na ni am nañu feebar bi ci wàllu test lii ma lim léegi ci test yi nu def muy junneeg juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent boo ko xoolee depuis début bi dafa mel na bu ñu doon def li tubaab naan moyenne bés bu nekk testé nañu 53 muy juróom fukk ak ñett échantillon waaye loolu dafa am ay bés yoo xam ne lu néew la ñu testé bés bi mu gën a néew ñoo ngi testé benn échantillon bés bi mu ëpp testé nañu ñaari téeméeri échantillon ak fukk ak benn loolu dinu indi ci wax ni Institut Pasteur bés bu nekk mën na testé juróom euh, juróom téeméeri test ci bés bi donc capacité yi des na rax ci dolli ñoo ngi liggéey pour yegg 1000 tests muy junni test bés bu nekk loolu li muy indi mooy jumtukaay ak capacité yi dañ ci taxaw pour que lu nu soxla ci test rek ñu def ko euh, fi Sénégal toll si li ci xam ak expert yeeg li li xam ci li xew ci yeneen dëkku àddina yi aajowul ñuy tester képp kuy sénégalais parce que loolu dëktuwul ndakaar rek ñeenti millions nit a ngi fi dëkk bu ñu bëggoon tester ñëpp du sotti. stratégie bi fi am te muy stratégie bi nga xam ni moom la ñu war a doxal moo méngoog li fi xew moo di ku yaakaar ni da nga am feebar bi nga am màndarga feebar bi ñu prélever la indi prélèvement bi Institut Pasteur ñu testé la ñaareel ba ku yaakaar ni jege nga koo xam ne dafa am feebar bi ba am na risque ñu prélever la loolu actuellement mooy stratégie bi war mooy stratégie bi experts yi dëggal fi ñu toll ci feebar bi mu am solo wax ni que test yi duñ ko def rek Dakar Institut Pasteur Institut Pasteur dafa def benn laboratoire ci ndigalu ministère de la santé ak euh, à Touba li waral loolu mooy ñëpp amoon ci zone boobu ak cas yu bare ñu bëggoon jegee laboratoire yi pour que laboratoire yi mën di tester nit ñi pour tester gaaw pour ñu mën a xeex épidémie bi pour yàlla defal ñu sutura ci li liñ ci xam ah Touba ba tey yàlla ngi ci suturaal. li ma mën a wax itam laboratoire boobu ba mu nekkee Touba ba tey échantillon yi jóge na jurbel Louga Fatick Kaolack Kaffrine maatam Tambacounda loolu mooy laboratoire bu nekkee fenn dana nekkal ah, gox ba mu nekk waaye itam dana nekkal feneen pour gàttal yoon bi yeneen région yi ci loolu itam ngir laboratoire yi gën a jege fi ñuy faje nit ñi gën a yombal test yi ci wàllu euh, gaaw euh, ñu jot aussi ndigal ci ministre de la santé ak équipe yi pour ñun ñu pour ñu institut Pasteur ubbi benn laboratoire Ziguinchor parce que Ziguinchor sore na am na ay malade ñu fay toppatoo te comme ni ñu koy defee Touba dina am ci zone yooyu ñu soxla pour le tests ñu mun leen ko defal foofu li ma bëggoon wax itam moo di ni euh, test yi capacité yi fi mu nekk nii permettre na. ñu liggéey lu tolloog stratégie bi euh, prélèvement bu nu jot itam virus bi dañ koy analyser li analyse virus bi wane ni mooy que cas yi ci ëpp bitim réew la jóge yi docteur Bousso doon wax la loolu la virus bi wane ñu gis ni que virus yi fi dugg ñeenti façon la ñu gis mu wane ni que daal introduction yi dugg-dugg yi ci ci bitim réew la gën a bare ma doon bëgg itam wax ci sama jeexal ni que. li ministre la sante wax léegi euh, directeur Kous wax ko moo di lëkkaloo ànd liggéey bi dafa rafetal liggéey bi yombal ko euh, tax ni jumtukaay yi yemb na tax ni itam li ñëpp ànd di liggéey moo tax euh, yàlla suturaal nu fi ñu toll ba ci waxtu wi et que loolu lu am solo la mu war a nekk njukkal boo xam ne dañu ko war a delloo képp kuy liggéey si waa kër docteur war ko aussi delloo taxawaayu kilifa yi war ko aussi delloo sénégalais yi. nga xam ni ñoo ngi coopérer baax ci liggéey bi parce que tey bu test ak prélèvement yeggee Institut Pasteur ay nit ñoo jógee ci terrain bi prélever indi ko wut information yi jumtukaay yi mat ba ñu ñëpp ñu bon ànd li lëkkaloo loolu mooy njariñu Sénégal moo tax ci loolu lañu kilifa yi digal te loolu la ñuy dox waaw ma bëggoon yemale fii wax wi daal di jox kàddu professeur Moussa Seydi bi nga xam ni moo yor lépp lu jëm ci wàllu prise en charge jërëjëf je voudrais donner la parole au professeur euh, Moussa Seydi qui est chargé de la prise en charge des cas je vous remercie. Bonjour. Euh, 2 mars 2020, euh, 2 avril 2020, un mois que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus euh, responsable du Covid-19, sévit au Sénégal. Et le Covid-19 euh, euh, vient de nous prendre un Sénégalais que tout le monde connaît, qui représente beaucoup pour ce pays, M. Pape Diouf. Je voudrais donc euh, présenter mes à sa famille, à ses amis et à tout le Sénégal. Nous avons, à l'heure actuelle, eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tels que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais il faut noter que la prise en charge ne se limite pas seulement au traitement spécifique. Certes, le traitement antiviral permet de raccourcir la durée d'hospitalisation, de guérir plus vite le malade. Mais ce traitement ne serait pas suffisant si on n'y associait pas les autres aspects thérapeutiques, tels que le traitement symptomatique, même le traitement de réanimation, tel que l'utilisation du respirateur, fait partie du traitement symptomatique. Donc le traitement symptomatique est essentiel. Nous devons en même temps traiter les comorbidités, parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Nous devons aussi prévenir les complications telles que la maladie ah, thromboembolique. Cette maladie peut se compliquer d'embolie pulmonaire et tuer le malade. Nous devons aussi prévenir les surinfections. Chez certains sujets qui ont une atteinte pulmonaire, nous devons donner des antibiotiques pour éviter que la surinfection n'emporte le malade. Donc tout ceci pour dire que la prise en charge, c'est un ensemble, c'est un package. Ce n'est pas uniquement euh, l'utilisation de traitement spécifique J'insiste euh, sur un fait. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse. Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus est gravissime peut-être que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine, bien qu'il soit connu que l'association avec de l'azithromycine euh, soit plus efficace. Mais après avoir traité un certain nombre de patients, nous n'avons pas noté d'effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape. Je voudrais aussi avant de terminer, souligner que le combat, ce n'est pas le combat de la prise en charge, c'est le combat de la prévention. Et la prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier la presse pour son implication dans ce combat, parce que c'est le combat de la prévention qui nous fera gagner la guerre. Ce n'est pas le combat de la prise en charge. Euh, si tënk rek li ma doon wax léegi ci français mooy feebar bi mu ngi fii di ñu lëjal depuis weer am na sa koo xam ne euh, feebar bi ci euh, foofu la jaare woy ji suñu borom muy Pape Diouf ñëpp ràññee ko fii ci Sénégal ma di ko jaale njabootam di ko jaale ay xaritam ak Sénégal yëpp euh, si ka nombre de cas yi ñu recevoir am na ñoo xam ne wér nañ 55 waaye li ñu seetlu mooy ñu ñu jox hydroxychloroquine ñooy gën a gaaw wér ku jëloon garab gi mun nga toog 20 jours hospitalisation waaye ñu ngi ko jox clairement ñun ñëpp seetlu nañ ñoom ñooy gën a gaaw wér loolu rek lañ doon joxe parce que dañ doon bañ joxe ñaari garab yi mu lëjal malade yi parce que chlore hydroxychloroquine xam nañ ne nit ñi supporté nañ ko bu baax mais est-ce que supporté nañ ko si feebar bu bees bii loolu yëpp moytu rek ñu ne dañ koy utiliser ba xool ndax supporté nañ ko gis nañ ne ñu ngi koy supporté bu baax léegi dinañ ci mun a yokk beneen garab yàlla mun nañu dimbale ñu amaat résultat yu gën a baax waaye nag du loolu rek mooy faj bi faj bi dafa soxla yeneen faj la ñuy wax traitement symptomatique te ma ko doon wax même réanimation réanimateur yi nga xam ne ñun ñooy liggéey ak ñoom ci traitement des cas graves li ñuy def sax ci traitement symptomatique la bokk malade bi mun nañoo am yeneen feebar soo ko fajaalewul feebar yooyu mun na décompenser mu yóbbu malade bi ay euh, complication mun na am war nga prévenir complication yi gàttandoo xam noo koy jëlee en charge kon faj bi dafa am lu bëri loo xam ne def ci war a ànd waaye nu munta demee guerre bi pour gagner ko du faj bi fagaro bi la fagaro bi la il faut que nit ñi jàpp loolu ñaareel bi ñu xam aussi ne garab yi nit ki war a ko jël di ko jox sa bopp loolu moom lu dangereux la si ñu koy def pour l'instant si liñ si xamagum garab bi utilisation médical loolu rek la war a nekk euh, mooy profité si occasion bi di sant presse bi parce que si prévention boobu mooy wax ñu ngi ñu si dimbale bu baax a baax te loolu rek mooy tax vraiment ñu mën a génn si situation bi ak jàmm Euh, fi mu ne nii nag fi laay yemalee sama kàddu di jox kàddu bi professeur Bey moom mooy nekk chefu réanimateur yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñun si cas yu grave yi ngeen jëf. Euh, jërëjëf euh, professeur Seydi comme ni ko sama yeneen collègue yi waxee ñu mu jiitu fii. Euh, depuis le 2 mars, donc le Sénégal est rentré dans cette épidémie qui est euh, euh, au Covid-19. Partout dans le donc cette crise à cette maladie pose d'énormes problèmes. Et ces problèmes sont surtout notés également par rapport aux patients qui les patients les plus ce que je peux en tout cas pour Sénégal, une attitude rassurante peut être déjà constatée par rapport à certaines mesures de prévention qui, sont déjà, qui ont déjà été prises, mais également par rapport à certains points forts qui sont dans le plan de riposte. Et dans ce plan de riposte, pour la prise en charge de ces patients graves, toutes les équipes impliquées dans la prise en charge des malades graves en général, que ce sont les services d'urgence, ce sont les services de réanimation, le SAMU, le service privé. Toutes ces entités se concertent et se concertent tous les jours pour mettre en place des protocoles, pour mettre en place des procédures adaptées en tout cas pour apporter vraiment une réponse à, ces, à la prise en charge de ces, plans, de ces patients graves. Ce qu'il faut noter également, c'est que il y a eu une très bonne anticipation par rapport aux lits de réanimation. Les lits de réanimation manquent dans le monde entier. Même en dehors du Covid, dans le monde entier, les lits de réanimation, c'est vraiment en médecine, c'est les lits de réanimation qui manque le plus. Parce qu'un lit de réanimation euh, complet et nécessite tellement de ressources en équipement, tellement de ressources également humaines, et que le monde entier, même aux États-Unis aujourd'hui, Et c'est la crise qui vient démasquer en tout cas toutes ces insuffisances par euh, à, la disponibilité de ces lits. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est que par rapport à la prise en charge de cette épidémie, d'emblée, 56 lits de réanimation ont été et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital Fan, où on a le centre Quemo, où on a pris en charge nos deux patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital d'Al-Djam également qui est en train de mettre aux normes de finaliser très rapidement et son service de réanimation, mais il y a également un certain de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Diamniadio. de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital euh, général de Grand c'est le cas également de l'hôpital de Pikine. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge? Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas graves, même si le virus, le coronavirus à un trophisme en tout cas sur l'appareil respiratoire. La défaillance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateur. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue. Dans un premier temps, les malades doivent être oxygénés, les malades doivent être surveillés. Il y a d'autres, le professeur le disait tout à l'heure, il y a des comorbidités qui participent à Donc, il y a vraiment une étape essentielle. Ce n'est pas tous les malades qui ont besoin de respirateurs. Mais malgré ça, quand même, de, beaucoup d'efforts ont été faits pour la mise à disposition, en tout cas, de respirateurs, de réquisition même de respirateurs qui n'étaient peut-être euh, euh pas utilisés ou bien qui étaient euh, en maintenance euh, avec la direction des infrastructures et des équipements. Un parc de respirateurs, en tout cas, a été mis à la disposition de ces équipes et seront installés dans les de prise en charge. au-delà de l'équipement, que, tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré, dénombré 96, en tout cas savante, la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes, qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer euh, des en tout cas, euh, euh, région, mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a un service de réanimation. Mais la particularité de cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Et la vie continue, parce qu'on a d'autres maladies qui sont encore là. On a encore le fardeau des urgences obstétricales, le fardeau des urgences cardiovasculaires, les urgences Euh, les urgences liées, euh, le fardeau lié aux urgences métaboliques. On a énormément d'urgences qui sont encore là. Même d'autres pathologies respiratoires qui ne sont pas liées au Covid, dont la prise en charge doit se faire dans les services de réanimation. puisque c'est une maladie contagieuse, et c'est ça qui rend la problématique un peu difficile. C'est d'abord créer un espace où les autres malades pris en charge ne seront pas contaminés, mais également donc euh, mettre les équipements nécessaires pour rendre encore beaucoup plus fonctionnels ces services qui ont été dédiés dans les régions. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, également, il y a des lits dédiés, en tout cas pour la réanimation. À Kaolack, ça a été fait. À Thiès, c'est en cours. Et à Diourbel, récemment, donc, on me renseigne donc sur cette disponibilité. C'était noté à Dakar. au Sénégal. On revenir. Euh, qui ont euh, la semaine dernière, je pense que c'est le 26 et 27 mars, qui ont été dans un premier temps évacués par euh, les services du SAMU national au niveau euh, du centre de de l'hôpital FAN, où une surveillance continue est mise en place.

était au chevet de ses patients, on discutait longuement et finalement on décidait du transfert en réanimation. Et c'est au cours de cette prise en charge en réanimation donc que notre regretté, en tout cas Pape Diouf, donc, a perdu la vie et nous présentons nos condoléances d'abord à toute sa famille, à Monsieur le Président de la République, à tous les Sénégalais, mais également à toute la diaspora, à particulièrement donc aux Marseillais. Alors je reviens également sur les demandes d'évacuation. ce n'était pas un problème de disponibilité du plateau technique. Je vous rappelle que le service de réanimation où ces patients ont été pris en charge, qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital de Fan à Kouemo, je rappelle que c'est un service qui a des normes européennes. Parce que c'est des malades opérés du cœur, de pathologies cardiaques sévères qui sont pris en charge dans cette réanimation. Donc on ne peut pas parler donc d'équipement ou bien de non-disponibilité d'un Et ces rapatriements ont été demandés, et c'est très courant, c'est très courant, nous, euh, en dehors de, de, la, de, la, maladie, quasiment des, des, des centaines d'évacuations sanitaires sont, sont faites donc, euh, sous demande de la, de, de la famille, parce que simplement, c'est des patients qui résidaient donc à l'étranger. Je reviens sur la gravité de la maladie, très rapidement. La gravité de la maladie euh, au fait que le virus, je le disais tantôt, un trophisme respiratoires. C'est les voies respiratoires qui sont attaquées de plus souvent et ça détermine une complication qui est assez grave. Et cette complication, en fait, même en dehors du, du Covid, c'est une complication qui est connue. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une pathologie qui est très grave, dont la prise en charge se fait en réanimation avec un taux de mortalité qui est quand même élevé. Même dans les pays développés, un taux de... Si la mortalité liée au syndrome de détresse respiratoire même dans les pays développés, les réanimations les plus équipées, est, est voisine de 30%. Et ce qui explique donc, associé à une maladie infectieuse aussi sévère, ce qui explique donc, si vous voyez à la télé, ce nombre de décès très élevé dans les pays développés. On avait dit tantôt que cette pathologie s'aggravait sur des terrains avec comorbidité. C'était les personnes âgées qui ont des tares, d'autres comorbidités, dont le diabète, dont euh, les maladies cardiaques, dont une maladie respiratoire préexistante, dont d'autres maladies métaboliques, dont le diabète, dont autre chose. Mais récemment, la littérature a montré que on a commencé à noter ces complications graves, même chez des sujets jeunes de la quarantaine. Et même tout récemment, chez des adolescents. Et ce matin, j'ai été étonné, j'ai entendu même un décès d'un nourrisson de deux mois aux États-Unis dans le Donc cette maladie n'a pas encore fini de nous révéler, en tout cas, ses facettes. Et j'insiste, c'est pour finir, que mon collègue l'a dit tout à l'heure, qu'on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer encore la préparation, continuer à améliorer la riposte à tous les niveaux. Mais surtout, surtout, surtout, on ne le dira jamais assez, insister sur la prévention, les gestes barrières. Chacun doit surveiller son prochain. Chacun doit se considérer comme étant potentiellement porteur de cette maladie et considérer son vis-à-vis -vis comme étant potentiellement porteur de cette maladie. Comme ça, ces gestes barrières seront respectés et toutes les, en tout cas, précautions seront prises afin de limiter la diffusion de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie. Euh, ma ko si wolof euh, mat na weer tey le 2 mars si le Sénégal jot premier cas malades euh, atteints de coronavirus maladie boobu ñuy wooye Covid 19 damay wax ni feebar boobu feebar bu jaaxal àddina bi yépp la du dëkk bu am moyen du dëkk bu amul moyen donc même dëkk yi développé yi donc maladie boobu mi ngi leen di jaaxal donc Sénégal nag euh, depuis avant sax ñuy am cas si la ñu commencé préparation bi. et préparation boobu tamit tax na tous les secteurs ont été impliqués préparation bu jur na benn boo prévoir nañ ko même euh, cas yu nga xamante ni sauvetage commencé nañ si réfléchir yàgg na am na ay réunions yu bari yu ñu def si famille yu anesthésistes yi si famille yu médecins urgentistes yi Euh, si universitaires yi si suñu collègues yëpp doon nañu réfléchir pour xool ñun yan protocole yan procédure la ñu xamante ni moom la ñuy teg en tout cas pour que suñu amee cas yu grave yooyu ñu mun a euh, apporter réponse bi nga xamante ni moom moo si war euh, lalu réanimation nag souvent question boobu du dina nañ ko dégg lu bari parce que gis nañ ni feebar bi su yeggee yenn day yi si sauvetage lañ leen di faje ñu bari nag ñu ngi laajte ba xam Sénégal am nañu lan li réanimation yu bari nañ ñu nag que feebar bi rek organisation bu am importance def nañ ko ba mettre en place ay lelu réanimation sauvetage yoo xamante ni dina mën a jël en charge maladie te loolu sax des na parce que ñi ngi yokkaat ñi ngi commandé waat ay équipement ñi ngi commandé waat ay respirateurs ñi ngi sax di jël ay respirateurs yi nga xamante ni ñi ngi woon seen hôpitaux yoo xam ne kenn utiliser ko pour équiper en tout cas ay lal yoo xamante ni dinañu jëriñ su fekkee feebar bi aggravé wu na damay insister ci gra gravité feebar bi kooku tamit euh, am na solo parce que feebar bi dañ doon wax naan complication yi si mag yi ñi nga xamante ni am nañ yeneen feebar mooy ñi am problème mu xol ñi am problème mu respiration ñi am problème rénaux ñi am problème diabète mooy problème métabolique ñoo ñooñu lay gën a yàpp dëgg la sax waaye nag li ñu seetlu fan yi passé mooy xale yi sax bàyyiwu leen ci cas grave yi nañu que tout récemment en tout cas si nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoo hospitalisé réanimation si dëkk yi nga xamante ni feebar ba vraiment taxaw na fa dëgg dëgg dëgg ñi am mois de 40 ans sax ñi ngi leen di hospitalisé réanimation te sax ci mortalité bi sax ñu ngi koy noté si dëkk yooyu. récemment tey si suba sax dégg naa benn bébé boo xamante ni sax feebar bi rey na ko donc feebar bi daal vraiment cas grave yi kenn loolu tax na prévention bi kenn waru ci baisser garde. donc vraiment di ñaax di ñaax population yi sama collègue yi wax nañ ko di ñaax population yi di ñaax collectivité yi di ñaax ñëpp que prévention yi manière mesure de prévention yi nga xamante ni euh, digle nañ ko ministère de la santé digle nañ ko donc nit ñi gën si góorgóorlu dinaa dellu si tamit si évacuation sanitaire bi nga xamante ni ñi ñi ngi koy laajte nga ni am nañ suñu euh, malade yoo xamante ni hospitalisé woon nañ réanimation dañ leen a évacuer à l'étranger est-ce que parce que Sénégal amul dispositif bi war man daal li ma gis en tout cas service bi nga xamante ne fi lañ la hospitalisé woon ma xam service boobu bu baax muy réanimation cardiovasculaire bu Kouéma bu professeur Oumar Kane di diriger hôpital Fann donc réanimation boobu amul dara loo xamante ni mun na ko mun na ko euh, ñee réanimation yi ñu gis Europe léegi nag dafa nekk ñoo xamante ni euh, Europe lañ dëkk c'est tout à fait normal loolu sax dañ koy noter très souvent évacuation sanitaire moom daf fi yàgg en général ku ñëw fii même lu ndaw ndaw ndaw dañuy demander évacuer sanitaire seen pays mais daal may rassurer ni évacuation sanitaire yooyu c'était pas lu tax ni suñu plateau technique moom moo leen warul woon mënul woon woon faj donc may insister waat si prévention bi ba pare di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ni en tout cas ñi ngi koy liggéey ministre la santé mu jiite ko euh, équipe yëpp ñëpp taxaw du ñu am guddi amuñu bëccëg euh, taxaw population yi euh, coordine yeneen secteurs yi coordination opérationnelle le comité national de gestion des épidémies vraiment euh, personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci hôpitaux yi kenn du leen fàtte personnel yi nga xamante ni tamit ñu ngi liggéey ci ambulance yi ñoom ñooy dem di jëli maladie yi di dugg ci centre traitement yi donc ñoo ñëpp vraiment maa ngi profité personnel institut Pasteur personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey si cellule d' yi duñu ñu fanaan ñu ngi si téléphone yi vraiment bàyyiwuma kenn journalistes yi ñi nga xam ne tamit vraiment rôle bi ñu joué fii vraiment rafet na parce que euh, quelqu'un le disait euh, kii euh, docteur Bousso mu ngi ko doon wax léegi que ni lii du combat wu santé combat wu ñëpp la defe naa ne combat sax communauté bi la defe naa suñu toppatoo toppatoo digal yooyu yëpp pare ku nekk bay sa waar defe naa dinañu am ndam si feebar bi maa ngi leen di sant leen gërëm. téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee newoon nañ leen tey point bi ça va être plus long que d'habitude daanaka ëpp na une heure de temps euh, ginnaaw ba jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram jëlee joxe le point du jour ci moom sax la ñuy njëkkee ndax tey am na 127 tests yoo xam ne da nañ koy réaliser ñu am nag 5 cas positifs yoo xam ne ñoom ñoo ci génn ñaar yi ay cas importés la 3 yi ay cas contact la mooy ñu ñu doon suivre mu am nag 10 personnes wala fukki nit yoo xam ne kon ñoom daal dinañ leen di fecc ba mu wér mu nekk kon xibaar bu neex bu euh, bés bi bi dooree ba léegi le 2 mars am nañ 195 cas muy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas positif juróom fukki ak juróom daal dinañuy wér kon jamono ji 138 di téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti nit ñoom ñoo nekk ci hôpital yi ñu leen di suivre gis ngeen ni bi euh, ministre bi joxee xibaar yooyu ba noppi dafa ne euh, weer bu jot rek léegi dañuy def lu ñuy woowee évaluation di bilan d'étape pour wax sénégalais yi fan la feebar bi toll moo tax ñu woo ay kàngam ci seen wàll ndax ñoom daanaka ñoom ñoo nekk ci liggéey bi ñu ñëw ci euh, situation épidémiologique logique bi ki nga xam ne nag moom moo njëkk a jël kàddu mooy docteur Abdoulaye Bousso di directeur bu COUS di centre des con centre euh, d'opération des urgences euh, sanitaires bu euh, Sénégal ñëw na nag ci li nga xamante ne moom mooy mbir mi dëgg-dëgg fan yëpp am na ay internet yu ñu doon interpellé ci pic épidémiologique bi maanaam est que mën nañu wax ni Sénégal jamono ji toll na ca cappaandaw ga wàcc rek la ñuy séntu loolee nag nee na day jafe ngir ñu wax ko waaye ci semaine ñu dëgmal daañu am lu gën bi ndax ci semaine boobee normalement waratuñu am ay cas euh, importé normalement kon ay cas contact la ñu war a am cas contact yi nag ñoom ñu ngi koy xayma ci 56 euh, pour cent cas communautaires yi 40 euh, wala cas importé yi 40 pour cent la cas communautaires yi ñu ngi sant yàlla 4 pour cent la waaye foofe docteur bi mi ngi alerte ne nag donte ni 4 pour cent la di téeméer boo jël ñeent jar na tiit ndax cas communautaires yi mooy cas yoo xamante ni dañu am feebar bi te xamuñu fuñ ko jëlee moo tax ñu ngi leen di topp bu baax a baax ñëw na ci région yi nga xamante ne ñoom la feebar bi laal juróom-benn dong la Diourbel Dakar Thiès Saint-Louis Fatick ak Ziguinchor am na nag juróom-ñaari centre de traitement yoo xam ni foofee la ñuy fajee ñi am feebar bi fu ci mel ni Fann Dalal Jàmm euh, kon centre hospitalier bu Malte Diamniadio Touba ci région yi Ziguinchor ak Saint-Louis foofee am na ay malades yoo xamante ni daal nañ leen di interner moom docteur Abdoulaye Bousso ñëwaat nañ ci euh, nombre de lits yi nga xam ne ñoom ñoo disponible ci hôpitaux yi ngir ku am feebar boobu kon nee na am na juróomi téeméeri lal yoo xam ne mu ngi ci hôpitaux yooyee kon mu mel ni capacité des na ñuy ñaan yàlla nag li yooyu mu bañ a fees mukk li nga xamante ne tamit moo jëm ci réanimation foofee aussi euh, docteur bi daan na ci àddu euh, ndax doon nañ ci wax bu baax a baax ginnaaw cas grave yi nga xam ne amoon nañ ko nee na nag am na benn centre boo xam ne mi ngi ci hôpital Fann foofee euh, mu ngi fonctionnel fa la ñuy ñi nga xam ne kon seen cas dafa a jéggi dayoo li nga xam ne nag moom moo nekkoon beneen débat test loole médecin bi wala docteur bi nee na mënut nekk lu stratégie bu Sénégal mooy képp koo xamante ne dañoo am njortu ci yow ni cas contact nga wala cas euh, suspect nga ñooñu kon la ñuy daal di defaral li nga xamante ne moom mooy test yi waa IRSF ñoom it daal di nañu dugg ci euh, langue gi euh, ñu ngi ñuy xamal ni foofu au niveau de Thiès ñoom ñooy amal li nga xam ne moom mooy test yi ci wàllum ba tey statistiques yi nee na ñu am ñaar fukki at ak juróom jàpp juróom fukki at daanaka ñoom ñoo ëpp ci ñu am feebar bi kon ñu jàpp ne xale yi mënuñoo am feebar bi ñu ngi nax seen bopp xale yi ñu ngi koy am ñu am 60 pour cent jëm kaw ñoom pour cent la ci ñu am mboobule jàngoro ba tey ci xayma yi ñu ñuy xamal ni jigéen ñi ñoo ëpp kon ñu am feebar bi ndax téeméer boo jël juróom fukki ak ñeent ay jigéen lañ ñeent fukki ak juróom benn ay góor lañ cas contact yi nag bi mbir mi dooree ba léegi ñu ngi toll ci 2888 euh, cas contact muy ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett waaye nag ci euh, cas yooyu noonu am na ñoo xamante ne suivre nañ leen ba libéré leen xool nañ ni amuñu euh, feebar bi kon jamono ji 1851 cas contact ñoom ñoo nekk sous observation moom docteur Bousso bi mu joxewee xibaar yooyu nag ki nga xam ne moom moo ko wutu ci présidium bi mooy docteur Amadou Alpha Sall di directeur institut Pasteur bu Dakar premier cas suspect bu Sénégal am le 26 février kon la ñu ko daal di euh, waaye euh, test yi ñu ngi koy euh, confirmer le 2 mars di kon weer ak léegi li nga xam ne nag moom mooy tënk ci euh, test yoo xam ne jot nañ koo amal ngir gaaw jox kàddu gi Cheikh Diaby 1738 euh, kon test lañ daal di amal ci euh, diggante 2 mars boobee ba 2 avril bi mu mel ni nag kon 195 cas confirmé lañ ci daal di am ñëw na aussi ci moyenu test yi nga xam ne moom lañuy ñuy amal bés bu jot ndax am na ñu jàpp ni dafa tuuti nee nag bu ñu ko xaymawee 53 test di kon juróom fukk ak ñetti test la ñuy amal bés bu jot nee na nag test minimum bu ñu amal benn la bu ci ëpp 111 tests la ñu amal euh, am na aussi ay tests yoo xam ne ñu ngi koy amal ci régions yi ndax am nañ benn laboratoire mobile bu ñu implanté à Touba depuis le mars moom mooy def ay test euh, ci région yu ci mel ni Diourbel Louga Matam Kaolack Kaffrine Fatick ak euh, Tamba moom it nee na dépistage massif bi c'est pas la stratégie pour le Sénégal ndax dañu xool rek ñi nga xamante ni ñoom la ñu njortu ni ñoo am feebar boobe ñu daal di ci ñëw ki nga xam ne tamit moom mooy professeur Moussa Seri di chef chef service kon tropical hôpital Fann moom it daal dinay ñëw euh, ci ni nga xamante ne moom lay doxalee liggéeyam mu ñëw nag ci chloroquine bi nee na bi seetlu na ni bañ ko commencé jox maladie ba léegi am nañ ci euh, résultat yu am solo kon efficacité bu mucc ayib moo tax mu ne dañu koy daal di continuer waaye nag duñ ci yam am na yeneen substance yoo xam ne dañ ko ci yokku ngir gën a pousser lii nga xam ne moom mooy euh, recherche yi ñëw na tamit ci automédication ñi nga xam ne dañ doon wutali ci pharmacie di jënd chloroquine jàpp ni bu ko mën a fajee mu yecc euh, hôpital yi ñëw na it ci li nga xamante ne moom mooy combat bi nee na combat bi jamono ji c'est pas le combat de la prise en charge mais c'est le combat de la prévention mu nekk kon message bu am solo sénégalais war ñu bàyyi kon baisser garde bi il faut ba léegi ñu gën a wéyal li nga xamante ne moom mooy sensibilisation yi ak prévention bi ndax kat bu mbir mi continuer ni am nañ yaakaar ni résultat yi dina gën a am solo moom nag ki nga xam ne moom moo ko wutu mooy professeur Mamadou Diarra Bèye di njiital SAMU cas grave yi ñëw na moom aussi ci disposition yi nga xamante ni nguur gi daal dina koy tëral fi may jeexale nag mooy ci cas grave yi nga xamante ni daal na koy wax wala gravité euh, maladie bi nee na feebar bi feebar bu doy la ndax bu la jàppee euh, Cheikh Diaby sa voie respiratoire yi lay njëkk song moo tax kon nit ñi war koo ragal kon ma jox la kàddu gi bañ ko monopoliser ndax daanaka li ñu euh, li jël li gars yi jël ci temps dafa jot a bari mu nekk exercice boo xam ne waaw weer bu jot léegi ko amal muy kon bi invité ak euh, Moussa. jërëjëf Lassana daañu ci bàyyi xel bu baax a baax bu soobee yàlla le 2 mai bii di ñëw comme ça ñu xool boobaa ñu ciy taxawee parce que tey moom euh, lii di euh, seen point de presse bi jël na sunu temps bi yëpp waaye comme on dit souvent la chandelle en vaut la peine. Mm. crise bi fu mu toll. épidémie fi mu toll wala sax pandémie ndax la wax parce laal na àdduna bi yëpp euh, baax na ñu def taxaw seetlu bu ñu defee weer gannaaw ba ñu détecté premier cas bi ci Sénégal le 2 mars dernier te le 2 avril euh, mu laas ni nga ko waxee noonu la amee professeurs yi jot nañu intervenir du ma ñëwaat ci loolu yëpp il faut que ñu dugg rapidement ci waxtaan bi parce que nous avons deux invités Moussa Moussa Sène mi nga xam ne moom mooy ànd ak man saa su nekk ci euh, waxtu bi di ànd ak man ci émission alerte coronavirus ku ci njëkk moom moo di le docteur moom teew na ci plateau bi daañu ànd ak aussi l'honorable député Abdou Mbow président commission affaires étrangères ak euh, Sénégal de l'extérieur et intégration africaine alors Moussa euh, ngir bañ a monopoliser parole dañuy jéem a jox directement docteur kaddu gi moom tamit mu analyser ñu un peu naka la jàngatee différentes déclarations yi nga xamante ay naataangoom yëkkati nañ docteur nuyu naa la bàyyi naa la kaddu gi. merci beaucoup cher maa ngi nuyu di leen ziar di leen euh, bi di wax ni. tey on est à m mm. maanaam bis ni tey le 2 mars le premier cas bi duggoon Sénégal euh, ma lu invitation bi sama mbokk monsieur Sène si dans le cadre de cardiovasculaire et coronavirus. Mm-hmm. mais d'une manière générale buñ mën nañ jàngat euh, si di professeurs yi jot a jaar ak euh, responsable yi nga xam ni mooy docteur Bousso ak Alpha que ni ni muy évoluer maladie bi actuellement du ma ni dal na xel. parce que tey moom xam nga comme ni ko kii waxee woon sànq rek chaque 10 heures demee résultat bac la ñuy jël. cinq cas lañ jot a am mais ñi ngi gis ni cas importé yi ñu wàññeeku bu baax baax baax te cas contact yi instant yi ñoom seen incubation aussi mi ngi mat si maanaam bu ñuy continuer nii cas yi di gën a wàcc rek incha allah dinañ jëm ba nga xam ni mën nañ espérer que mën naa am sa cour biro pic bi romb nañ ko mën naa nekk. ndaxte euh, li tax ñu tëj frontières yi arrêté école yi ak couvre-feu confinement yeeg mesures ñuy jël yépp dafay feeñ ci li nga xam ni mooy cas importé yi. donte leen la décision finale ñu ngi koy xaar la semaine prochaine parce que li ñuy xaar également cas communautaire lu ñu redouté maanaam foofu mu am ay cas communautaire yu exposé parce que période d'incubation bi ngay wax dana fekk atteindre nañ ko. effectivement effectivement parce que cas lépp euh, maîtrise bi yëpp mi ngi nekk ci cas contact yi. ñoom ñooy secondaire yi. cas mm-hmm. importé yi cas contact la jox. cas contact bu ñu leen maîtriser rek après li ci des cas communautaire yooyu ñuy wax comme 4 pour cent yu muy wax jarul xeeb de. Mhm. parce que loolu moom c'est c'est fatal communautaire mooy ki nga xam ne ñi ngi ci biir jaww ji maanaam ñi ngi ci biir dëkk bi xamoo fu ñuy fële. donc bu ñu maîtriser cas contact yi rek ak ni ñuy réquisitionner hôtel yi actuellement suivi bi. ak euh, ni mu ñu la njaxlafee district yi actuellement ñi nga xam ñu ngi xool kenn par kenn euh, kenn rëccu leen macha allah amul benn échappé amul da amul kenn koo xam ne rek néew ñu xamuñu fu mu dugg wala xamuñu fu mu nekk wala xamuñu ko mu nekkal bu ñu ko continuer noonu incha allah dinañ ci am yaakaar trop. te dama doon faral di déglu ci waxtaanu professeur Seydi euh, à chaque fois mu doon wax mu confinement ne woon na c'est inévitable on va vers le confinement aujourd'hui pression bi xaw na wàcc tuuti wala c'est encore trop tôt de dire que ne bon euh, la situation est waaye amoon à mon avis c'est encore trop tôt. de dire ça parce que ñoom ñooy spécialiste yi si loolu mais euh, je sais pas c'est pourquoi il a pas parlé peut-être que nombre de cas bi wàcc tey mën naa am mais lépp mi ngi dépendre si évolution bi Covid bi dafay dafay làq euh, li nga xamante ni ñoom la ñuy wax une évolution boo xam ne incertaine chaque jour ak ni muy génnee donc teel na trop wala c'est euh, vraiment aléatoire de parler de de certaines choses maintenant. dëgg la voilà. Moussa comme tey waxtu bi daf ñoo xaw a tënk dama bëgg maa yow ñu xaw a changé toute stratégie adapté wu moo tax ma bëgg tamit ay laaj nga dugal ko laaj ko docteur comme eh, ça bu ñu paree ci loolu ñu dublu ci honorable député. Mhm. waaw Cheikh ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi di bàyyi xel ci ñoom lu bare bare di rafetlu comme ni ñu ko waxee docteur mi ngi ci ñu ngi nuyu honorable député Abdou mbaw docteur euh, boo déggee tey ci li nga xamante ni moom la njëkk a wax dafa antu jëm ci wàll wi nga xamante ni moo di. les maladies cardiovasculaires. Mm -hmm. cardiovasculaire moom la ñu jël contextualiser ko par rapport ak Covid 19. pourquoi parce que dañu gis ni ñi nga xamante ni dañu amee ay maladies chroniques dañu doon ay cibles yu nga xamante ni la plupart du temps euh, dañu gis ni ma euh, lu jëm ci wàllu Covid 19 pour faadaagal leen dafa yomb. dëgg donc yaa ngi gis Seydi di ko wax. Mhm. loolu tax tey jii ni mu interpeller d' autres spécialistes yu nga xamante ni au delà des infectiologues ñoom yi ñu doon loolu tey jii nii moom moo tax ñu bëggoon. ci leeral ñi nga xamante ni am nañu yi nga xamante ni ay feebar la yu ñu mel docteur mën ci leeral déjà maladie cardiovasculaire situation épidémiologique bi nga xamante ni moom la ñu nekk au Sénégal. waaw euh, monsieur Sène jërëjëf euh, maladie cardiovasculaire nekk na li nga xamante ni actuellement. lu ñu lu lu lu teg tànkam ci réew mi la. Hmm. lu teg tànkam ci réew mi la parce que li mu englobé dafa bari maladie cardiovasculaire. Euh, bi ci jiitu li nga xam ne moo ñu sonal si le plan épidémique mooy hypertension artérielle. HTA mhm. mais yeneen maladies yëpp tamit ñi ngi fi. ñi nga xam ne ñi ngi koy jaarale ci euh, maladie d'origine valvulaire yi yi nga xam ni c'est rythmique yi nga xam ni c'est euh, ischémique maanaam lépp lu nga xamante ni mën na joxe insuffisance cardiaque ak lépp li nga xam ni mën na njalbeen bi ci sidit lay jóge wala si cholestérol wala si jabet mën na dem ba nga xam ne xol day néew doole ñi ngi si réew mi Euh, te loolu suñu mode de vie moo koy déterminer ak suñu hygiène de vie. Mhm. macha allah mais actuellement maladie cardiovasculaire nekk na li nga xam ni prévalence bi nu mu taxawee daanaka ci pays industrialisés yi gis nañu moom la taxawee daanaka ci pays sous-développé. ci mhm. pays en développement. muy Sénégal. alors mais que entre guillemets sont un peu fa la jëmoon sax. Mhm. parce que c' dañu seetlu ne ci registre yi ñu jàng parce que Covid bi comme dafa bees. Euh, mënuñoo génne ay registres yu mag yoo xam ne instant études yu mag moo ko génne pour l' instant la jot a xew Chine ak yenn journal américain mel ni comme ay JAMA ak euh, ACC yenn ay sociétés savantes yi nga xam dañoo jot a jot ay cas def ay autopsie ci yi nga xam ne cas grave yi ñu jot am dañoo gis ni ñi nga xam ñoo am maladie cardiovasculaire yi ak diabète ak insuffisance rénale chronique yi ñoom ñoo ëpp si cas grave yooyu ñoom ñoo ëpp si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci bi mm-hmm. donc muy lu jot a bàyyi jar a bàyyi xel ñoom ñoo war a gën a moytu tey comme li nga wax pour am feebar bi parce que am na ñoo xam bu ñu ko amee dañuy mel ni ku grippé wér mais seetlu nañ daal ñi nga xam ne ñoo am feebar yooyu bu ñu ko amee ñoom dañuy dem ci forme grave bi mm-hmm. te forme grave bi nag egg fa wóorul waaw mën nga alors gis nañu euh, professeur Bey mi ngi koy wax parce que ñoom ku xam lu jëm ci wàllu SAMU wax ci lu jëm ci wàllu urgence mais gis nañu ci côté réanimation bi nga xamante ni am nañ fa déficit c'est un problème problème bi déjà mu ngi ci euh, ressources humaines yi mi ngi ci plateau technique bi nga xamante ni des na mais d'autre part dañu nemmeeku tey bu ñu xoolee anatomie du cœur maanaam bindin bi nga xamante ni noonu la mel te ñu gis ni SRAS dafay infecté lu jëm ci wàllu poumon bi alors le côté droit du cœur par rapport ak lu jëm ci wàllu bu ñu demee ba ñu nekk ci détresse respiratoire est-ce que tey mën nga expliquer ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi pour ñu gën a mën a comprendre à ce niveau. waaw kër kër maanaam kër dafa lié comme ni nga ko waxee rek cœur dafa am ñaari pàcc. Hmm. xol dafa am ñaari pàcc. dafa am benn mur bu dox seen diggante am pàcc càmmooñ am pàcc ndeyjoor pàcc càmmooñ bi mën nañ ko méngale ak li nga xam ni moom la ñu branché racole mag bi aorte muy distribuer deret bi nga xam ni am na oxygène maanaam am na ravitaillement camions yi chargé ñu dem joxe ko organes yi ko soxla fois pancréas rat extrémité yi fépp fu organe nekk dañ koy ravitaillé bu ñu ko ravitaillé ba pare dañuy dem foofu ñu jël déchets yi mel ni comme camion malit lay nekk léegi jël ko par les veines cave supérieure inférieure yóbbuwaat ko ci xol bu ko yóbboo ci xol xol bi fi mu koy dugal ah, traité ko jox ko artère pulmonaire artère pulmonaire jox ko poumon yi poumon yi foofu deret ji fay ñëw mooy deret ji nga xam ni dafa pauvre en oxygène parce que loolu la jëlee ci organes yi bu ko joxee deret ji pauvre en oxygène mu jox ko ñaari artère pulmonaire droite ak gauche jox ko poumon gauche ak ñoo ñooñu enrichir ko en oxygène joxaat ko encore les veines pulmonaires mu récupérer ko par l'oreillette gauche beneen kër bu ne ci xol bi kooku distribuer encore le sucre commence maanaam loolu mooy pompe yi nga xam moom la ñu am petite circulation yi ñu jàngoon CM2 ak grande circulation. Mhm. petite circulation mooy propulsion bi jëm ci poumon yi grande circulation yi mooy mu jëm ci nga xam ne mooy yaramu nit ki yépp mhm. maintenant poumon ak cœur dañoo lii effectivement lépp loo xam ne laal na poumon bi rek mën na laal cœur bi surtout le kër droit directement. Mhm. maanaam ci surtout charge yi ventricule droit bi ak yooyu mais dañu seetlu ni euh, si Covid bi nii détresse respiratoire bi ñu am stress bi ñu am par rapport ak euh, virus bi. nekkul virus bi en tant que tel moo koy joxe. maanaam dafa nekk ay réaction cascade de réaction inflammatoire la maanaam ay tooke tooke yoo xamante nii alvéole bi nga xam mooy unité bi nga xam ni fa la air bi waroon nekk di di di jox di di échange di fa am. mooy échange yi ma doon wax léegi oxygène ak gaz carbonique alvéole yooyu dañuy dem ba dañuy dañuy dañuy dañuy am neewoo dañuy feebar am inflammation bi nga xamante ni. nekkul euh, virus bi moo fa nekk mais virus bi moo moo waral inflammation bi am foofu. Mm-hmm. ba nga xamante nit ki dafay am benn détresse respiratoire aiguë bu sévère. léegi à travers ce dispositif loolu directement kan mooy njëkk a yëg muy xol bi. Mm-hmm. xol bi bu yëgee kan mooy njëkk a yëg côté boobu muy poumon yi donc c'est un cercle vicieux boo xamante ne nii foofu euh, jàngoro bi dana fa intervenir bi ci des mooy xol d'une manière général xol moteur la. maanaam mi ngi mel ni comme ni ma la ko expliqué rek oto mën na am rétro bañ am rétroviseur daw. Mhm. mën na am ba a pneu ba pare di direeku ba egg ci vulcanisateur mais bu amul moteur moom doo ko jëlee sax ci mécanicien fa nga koy bàyyi da nga naan am oto bi pareegul. Mhm. waaw xol noonu la mel ci xol moteur la donc moteur boobu su dafa défaillant maanaam lépp loo xam ne mu ngi si dir rek pour mu défaillant day yomb. Mhm. parce que moom mooy joxe ravitaillement yi. waaw moom borom kër bu feebar lay doon boo xam ne bu joxewul rek kenn du lekk donc système immunitaire bi hmm. day yomb pour ñu attendre ko Euh, nit ki day yomb ñu fàggaagal ko loolu moo tax ñu leen di ñaaxaat ñi nga xam ne ñu am problème côté boobu ñu gën a moytu ñëpp ay war a moytu waaye ñoom ñoo ci war a gën a moytu d'accord jox euh, honorable après ci ñu ñëw laaj docteur surtout ci nga xamante dañu am souvent infection pulmonaire ñi nga xam ne aussi dañu ay tuxkat lañu wala naankatu sàngara yi gis nañ quand même ce sont un peu les plus vulnérables par rapport à cette maladie mais docteur dinaa ñëwaat yow ci kanam tuuti ma bëgg jox kàddu gi honorable euh, jox ngeen Euh, am na ñu ne ay sañ-sañ ak doole lenge njiiti réew mi ba fu mu toll nii pendant trois mois mun na dogal nu mu ko neexee loolu nag jot fa indi sax ay coow yow sa bopp jot nga faa indi benn amendement boo xam ne yëgg nañu sax ministre de la justice xaw ko nangu yow mi teewoon démb assemblée lan ngeen mën a wax. waa waaw jëf euh, maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi di nuyu sa confrère di nuyu aussi sama sœur docteur Kébé. nga xam ne ñoo dëkkandoo Thiès mais c'est di wax rek ne euh, xam nga souvent nit ñi aussi dañuy jaxase lu bëri euh, xam nga woy jox nañ président ay sañ xam nga euh, dëkk dafa am yoon dëkk dafa am ay loi ak règlement ñun suñu constitution dafa am ci article 69 bu constitution dañu wax ne ci ak article 77 ci la ñuy wax état d'urgence état de siège ci la ñuy wax loi d'habilitation mooy ci ñaari articles yooyu. donc bokkum ne da ko violé waaw xam nga moom li muy wax peut-être euh, nekkoon na député mais daf ko xamul xawul xam parce que <laughs> maa ngi dégg mu ne woy dañu violé parce que euh, assemblée bi trente et quelque ñoo nekkoon xam nga loolu. bu fekkee da nga war a am quorum mais l'assemblée est en session xam nga assemblée nationale bu Sénégal benn session la muy session unique. qui s'ouvre dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et qui se ferme le 31 juin plus tard de l'année suivante souvent gars yi dañuy bëgg a nekk ay experts duñu liir bu baax les textes loolu moom mooy assemblée nationale à l'époque ñaari session la woon mais présentement benn session la nekk loolu moo nekk ci loi organique bi kilifa booy wax da koy teg ci ay firnde muy benn beneen bi mooy. Mm-hmm. li nga xamante ni moom moo am maa ngi dégg léegi nga ne ministre de la justice. Euh, xaw ko nangu loolu da ngay xoolaat un peu euh, démb. Mhm. le ministre de la justice dafa ne. Mhm. awma benn objection ci amendement bi nga xam ne le député Abdou Mbow def na ko awma benn xam nga loolu wolof la en français je n'ai aucune objection au niveau de l'amendement kooku bu d'accordul kon loolu koy wax dëgg yàlla d'accord mënu ko passé muy benn beneen bi mooy. Euh, les pleins pouvoir xam nga comme ni ma la ko waxee xam nga euh, cëslaayu Sénégal mooy constitution di charte ndey réew mi bu ñu joxee ay tegtal nañu benn situation bu amee président de la République mën na dem assemblée nationale ñu votel ko loi d'habilitation mais loi d'habilitation boo xam ne dafa am dafa encad dafa am lu ko dañ ko encadré moo tax bi nga déggee ñu def ci judiciaire ñëwaat ñu indi ci ay coow naan président dafa bëgg a profité ci loi d'habilitation puis def arrière ci la proposé amendement pour non seulement ñu dindi groupe de mots tous ordres mhm, ba pare dindi li nga xamante ni mooy judiciaire pour yemale ko ci li nga xamante ni moom mooy sanitaire sécuritaire financière ak li nga xam pour faire face au Covid 19 te loolu bu ñu ko dee def ci trois mois la yam ci trois mois yi sànq maa ngi waxtaan ak sama sœur bi. ñuy expliquer entre décret ak ordonnance ma ne ko décret président day jël décret comme par exemple ñu ne décret d'avance dañuy jël décret d'avance après ñu indi ci benn loi de finance rectificative ñu mën a euh, voter mais ordonnance bu ko président jëlee dañ koy indi assemblée nationale dans les trois mois pour mu am ratification donc il faut que nit ñi def la différence et le président de la république mënul am yeneen pouvoir maa ngi dégg tey ci suba benn euh, journaliste dans une radio de la place bi may ñëw ci sama oto mu ne wéy mënoon nañu jox président de la république sañ-sañu bu ñu bàyyi woon judiciaire bi <coughs> day xëy rek tëj benn rajo alors que article li nga gis ni hmm. moom mooy euh, la loi 69 29 bi nga xam ne moom mooy wax ci état d'urgence dama lay jox exemple gis nga ci article 10. Hmm. dañu ne jarul sax mu yegg ci président de la république te lii 1969 la. dañu bind le décret instituant l'état d'urgence peut par une disposition expresse expresse conférée aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu'au ministre de l'Intérieur au gouverneur au préfet et en cas d'empêchement à leur adjoint de pouvoir ordonner en tout lieu des perquisitions jour et nuit jamono bi nekk nii. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu yokk ci habiliter l'autorité administrative compétente à prendre toute mesure appropriée pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisions des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. lii préfet rek mën na ko def ci affaire émissions radio télévision préfet wala euh, gouverneur wala leneen donc il faut que nit ñi ñuy bañ souvent bàyyi. di jaxase loo xam ne bokkul. c'est que furtu bu moo xaw a jaaxal. non non non parce que affaire bi ñëpp ne c'est pas clair ay invités yu bëri jot nañ jaar fi ñu ne xamuñu lan moo nekk ci ordonnance bi. et puis vous voulez qu'on vote ça comme ça il faut que ça beaucoup plus clair c'est très clair parce que xam nga aussi dañoo écrit bind noir sur blanc Cheikh Diaby dans l'article premier dañu def relevant du domaine de la loi afin de faire face aux besoins d'ordre économique budgétaire sécuritaire et sanitaire loolu c'est très clair maintenant une ordonnance. que le président de la République n'a pas encore pris par rapport à cela nooy mën a xamee ordonnance bi lu nekk ci biir mais le champ d'application est encadré li nga xamante ni moom la war a def wax nañ ko parce que dañu bind loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance de mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 loolu leer na léegi est-ce que président de la République mën na jël benn ordonnance daan ne ah léegi kat dañuy dem élection ba 2030 mënul nekk parce que bokkul ci champ d' application bi. en a entendu le déggoo li ma la xam nga xam la vie. Hmm. man su fekkee damay wax ne ah lii kat dafa dangereux damay wax ne lii moo tax mu dangereux mais man Cheikh li ma lay wax dama ko teg ci ay këyit yu leer naññ këyit yoo xam ne ba muy am. peut-être yow mën nga am juddu woon nga mais man juddu moom 69 la woon 69 juddu xam nga loolu xam naa ne sama du ma wax sax sama rakk mais sama sœur bi toog fi tamit xam naa ne donc loolu yàgg na ce qui veut que l'État dafa am continuité te li ñuy wax dañu ko teg ci ay firnde yu leer nekkul loo xam ne dañ ko wax moo tax démb bi ma ñëwee j'ai proposé l'amendement pour d'abord non seulement expliquer na ne leen président de la République li ko tax a jóg moom mooy aujourd'hui avec toutes les forces vives de la nation ñu def face à au Covid-19 parce que defe naa ne fi mu toll nii wax dëgg yàlla hmm. sànq rek euh, ñu ngi ci am ay waxtaan euh, politique dafa am temps élection dafa am temps jaxasoo dafa am temps mais jamono bi ñu toll nii jàpp naa ne liñ naan ku nekk ci àdduna bi boppam la tal. Ah. Sénégal dafa war a tal boppam gis nga man je pense que tey jii souvent sax boo seetloo damay bañ sax démb bi ma invité sax dama xaw a siisu parce que jàpp naa ne tey plateau télévision yi dëgg la ñun war nañu ñëw pour inciter à la sensibilisation expliquer li nga xamante ne noonu la ñuy def. parce que tey jii mais du tey jour. non non non non di expliquer non di expliquer non non di expliquer non Abdou Mbaye wax na lu muy wax. non pas je dis non ma la man am na ñoo xam ne du leen tontu jamono ji parce bu jotee dinaa leen tontu parce que bàyyi Sénégalais yi ñu juger présentement. aujourd'hui ñun li ñu war a def mooy lan lañ war a def pour que Sénégalais yi génn ci lii ah. lan lañ mën a def ba Covid 19 jóge fi. ñun ñi nga xam ne ñooy assemblée nationale bi nga xam ne war nañu woote pour jox président armée yi ñu woote loolu gouvernement bi li mu war a def pour que ñi spécialistes yi wax sànq am ay ay parce que euh, am ay euh, matériel bu doy pour mën a euh, def face à cela parce que j'ai entendu le Premier ministre Édouard Philippe dire hier mm. que aucun système de santé n'a été préparé pour faire face à une pandémie. Justement. Et, et, et, et non non non mm -hmm. non non non bàyyil ma àggale xam nga je l'ai entendu dire ça c'est pas que dama naan lépp c'est vrai non mais boo seetloo ci àdduna bi mais je lui dis que c'est vrai aucun système de santé n'a été préparé pour faire face à une pandémie mais tout tout système de santé aussi doit se préparer à faire face à une pandémie parce que nag aussi loo xam ne la ci àdduna la bokk. loo xam ne dafa bokk ci àdduna da nga war a jël say matukaay pour bu ñëwee mu bañ la bett. Hmm. te tey jii gis nañ ne Sénégal quoi qu'on puisse dire les mesures qui ont été prises ñun xaaruñu ba ñu am cent 100 200 300 cas ñu ne dañuy tëj école yi dañuy tëj frontières yi dañuy tëj leneen am na ñoo xam ne def nañ ko tey jii ay pays industrialisés xamatuñu sax fu ñuy taxaw mais ñun dès que affaire bi am gis nga aussitôt le président a fermé les frontières te gis nañ ne. du spécialiste peut-être docteur mën na ci ñëwaat sax après mais boo seetloo les cas importés mi ngi wàññeeku parce que cas importé mooy ñi nga xam ne dañoo jige bitim réew. bi ñu ñëwee boobaak léegi gis nga ne chaque jour dafay wàññeeku li ci des moom mooy ay cas contact cas communautaire yi gis nañ ñu ngi wàññeeku donc ce qui veut dire que aujourd'hui mesure yu ñu jël moom mooy tëj école yi euh, euh, institut état d'urgence euh, tey les mosquées les cérémonies religieuses loolu dina war a gën a tax mu wàññi mbir mi ba pare nag ñu war a continuer. di sensibiliser les populations pour ñu dem vers l'essentiel donc je pense que aujourd'hui on doit aller vers l'union sacrée l'union des cœurs mais l'union sacrée l'union des cœurs ne veut pas dire aussi continuer à sensibiliser les populations pour que ñu mën a am euh, pour ñu mën a am vraiment de bon comporte d'accord euh, l'Assemblée nationale dans son rôle dina contrôler non seulement le gouvernement fi nga xamante ni fa la ñuy voter euh, budget réew mi mm-hmm. Abdou ñaata ci pourcentage la ñu jox budget wu ministère de la santé. c'est-à-dire maanaam pourcentage yu budget national. liñ ci dindi. pour jox ministère de la santé ñaata la. xam nga bi ñu jëlee le pourcentage damay egg si ñun bi ñuy egsi on a trouvé parce que ci CEDEAO dañu wax ne. UEMOA UEMOA excuse-moi dañu wax ne dañu bëgg ministère de la santé budget bi dem ba 15 pour cent 14 pour cent bi ñu ñëwee ñun. ñu ngi ko fekk pratiquement 1 pour cent en 2012 aujourd'hui on est vers les 7 8 pour cent et je pense que loolu li muy wane moom mooy ñun am na progression boo xamante ne ni mi ngi am ce qui veut dire que ñun encore y a des choses qui mais le plateau médical chaque jour ñu wax ci xam nga damay rendre un hommage mérité à au corps médical sénégalais au ministre de la santé d'abord et tout tout le corps médical y compris Euh, sama sœur bi toog ak ñëpp parce que tey jii ils sont au premier plan ñi ngi def seen kéem kattan ba pare la formation bi nga xamante ni moom la ñu am c'est une formation bu am solo. waaw loolu nangul nañ muy benn beneen bi mooy loolu nangul l'état aujourd'hui est en train de parce que boo gisee le tey li ñu wax fii mais war na mën a dalal xel parce que on est à 134 cas yoo xamante ni ñi ngi sous. Euh, hospitalisation pendant depuis un mois ñu ne am nañ 500 lits yoo xam ne disponible mais lii yi ñuy wax non non il faut avoir une ouais. précision parce que question bi ma laaj. oui dafa jëm ci 15 pour cent yi. non non mais mais dafa ndànk mais moom mais moom je précise parce que. yaa ngi dugg ci personnel de santé. loolu ñoom la leen jox ñëpp dañ leen a jagleel gàcce ngalaam. xam nga tey depuis 2006. UEMOA mhm. dafa arbitré ci. pays yi nga xamante ni ñi ngi ko seq ñoom ñëpp ci programme d'investissement sectoriel naka la ñuy def ba réew yi nga xamante ni ñi ngi ci 15 pour cent ñu dote ko ci lu jëm ci seen wàllu budget santé gis nga programme PIS boobu bu ko Sénégal est-ce que mën naa laaj benn affaire. defal ndànk au niveau de l'UEMOA ah, defal ndànk defal ndànk. au niveau de l'UEMOA defal ndànk ma terminé honorable defal ndànk ma terminé. programme boobu. dañ ci tënk loo xamante ni. dafa tombeek 2011 2015. 2012 ngeen ñëw. fa ñëwaat ci PNDS docteur xam na li may programme national développement sanitaire ñu am ci lenn loo xamante ni ay recommandation yoo xamante ni Sénégal tey bu ci tënku woon ci par ci lu jëm ci wàllu plateau technique tënku ci lu jëm ci wàllu orientation on allait anticiper sur beaucoup de catastrophes c'est pas pour un rien qu'on a un COUS nga gis Abdoulaye Bousso ñëw taxaw muy centre des opérations d'urgence sanitaire cela veut dire que ni tey ñun am na fenn foo xamante ni mën naa la ko nangul mooy dañu am retard c'est que non non non attends c'est que non non non moi j'ai pas parlé de retard c'est que yow li ngay wax. non écoute-moi li ngay wax. waaw ak budget. c'est diamétralement non waaye déglu ma noonu damay déglu man question de moyen laa doon indi. yow yow yow posé question ba pare tontu. da ma may posé question c'est parce que yaa ngi dévier danga ne ma. waaw xam nga danga nekk. ci des recommandations man dama la laaj 15 ñu orienté mais déggoo li ma la wax dama ne la matul def mënuñu faire ah. léegi Moussa léegi Moussa bàyyi déglu allez-y matul hmm. mais waxuma la on en retard dama ne la man maa man maan la ni on est en xam nga ndax la la 15 pour cent yi ñu war a octroyer nekku fa te dafa doon loo xamante ni c'est une recommandation pour que les pays en voie de développement ou bien les pays en émergence ñu mën a faire face ak lu jëm ci wàllu accès à des soins de qualité seen plateau technique ñu rele ñu relever ko va voir document PIS. dañ ko ci def def nga may laaj wala da may wax da nga may laaj da nga may déglu rek. non dama bañ nga déglu attends xam nga aussi dangay ngay laaj. munoo wax ba ma wax yow li nga bëgg a wax man li ma bëgg a wax laay wax da nga may déglu je vous dis. et je suis formel. une recommandation ne pas une exigence muy un. parce que yow tu me parles de deux. recommandation muy benn waaw non non non non non ma dama ne fut-il un document de la Banque mondiale ah. c'est pas une exigence ça je suis formel et mënoo ko dindi muy benn beneen bi mooy tu me diras pas aujourd'hui un pays de l'UEMOA qui a 15 pour cent de son budget octroyé ko ministère de la santé. du exemple mais da may déglu nag. mais loolu du may déglu si c'est pas cohérent on vous le dit. waaw léegi beneen pays respecté wul loolu taxul Sénégal bañ ko ah. mais mais mais moi je pense que aussi il faut qu'on se respecte respecter bu mooy lan wax d'accord ma déglu. je su may wax da nga may déglu. je te le conseille waaw mais déglu ma s'il vous plaît. parce que quand on est courtois aussi du ñu dagg nit dañuy bàyyi nit ki mu àggale bi ngay wax dama la déglu je vous dis et je suis formel une recommandation n'est pas une exigence exigence un document de la Banque mondiale. honorable loolu dépassé nañu donc Moussa bàyyi ko mu yëgal bàyyi ko mu yëgal bàyyi ko mu yëgal Moussa bàyyi ko mu yëgal. non je pense que li ngay def nii mun naa ko mais du ma def par respect au Sénégal. non s'il vous plaît non non non li ngay def mun naa ko def ngay wax ma lay mais par respect aux Sénégalais du ma def. parce que je ne suis pas là pour polémiquer. moi je pense qu'on est là pour éclairer la lanterne des Sénégalais. jamais je ne aujourd'hui li ngay wax ni gënuma ko xam parce que document boo liir liir naa ko li nga may wax nii xam naa ko donc déglu ma rek te loi yi ngay wax nii à l'Assemblée nationale ak lañ ciy def li ma ci xam xamoo ci asaka bi donc je pense que aussi dans la vie le mieux c'est quand tu poses une question nga déglu nit ki mu wax la. mais booy dévier dañ la koy dañ la koy rappeler. réponds à la question Moussa Moussa il faut pas qu'on polémique nañu nañu nañu polémiquer. tu vois donc moi je pense que pour revenir à pour revenir à ce qu'on disait pour revenir à ce qu'on disait moi je voudrais juste profiter de l'occasion pour d'abord nga may juste une minute ma jël kii téléspectateur. oui oui y a pas de problème allo allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. suñ Cheikh Ahmad Tidiane. waaw sant yàlla sëñ bi noo tudd. Maodo Ndiaye Rofis. Maodo Ndiaye ñu ngi lay nuyu jërëjëf yow la ñuy déglu. ñu ngi leen di jaar bu baax di kontaan ci ñu leen di delloo ziar Ndiaye. Eh, sëñ Moussa. jërëjëf. waaw di kontaan ci émission bi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. waaw ñun de moom en tant que taamu ñu di woote ñun dañu doon seetaan daal. Mhm. mais dafa am lu ñu bëgg a euh, séddoo ak euh, sénégalais yi mooy ci wàllu sensibilisation boobu ngeen di wax mm-hmm. dëgg la am na solo lool lool loolu fu ñu ci toll nii mooy lu ñu war a moytu fu ñu war a yëm ak lu ñu war a di di di ko jëfandikoo ci liquide yi bu dee ci gants yi bu dee ci lu munti doon mais man tamit ci sensibilisation bi ba léegi dama ci bëggoon yokk lenn ci sama kalaat nag mooy ndax ba léegi ñun tamit mënuñu dimbali Sénégalais yi pour sensibilisation bi nañ ci boole ñu ñu ñu ànd tuub ñu Sénégalais yi ñu ànd tuub jéggalu jéggalu suñu boroom ànd tuub def benn say du pour ñu booloo daje fenn mais dañu ànd boole suñu xol. ak suñu xel comme suñu mag ñi lu ñu doon dimbali bu bu bu amoon kaw-kaw lu mel ni ñu jéggalu ci suñu borom ku nekk nag ak sa kemtelaay ku nekk ak si nga ci toll ku nekk tamit ak li nga ko mënee ak ngëm-ngëm boo mun ci gëm nga ñaane ko ci ngëm-ngëm boo mun ci gëm nga ñaan ci sa borom mu nekk sa participation ci population Sénégal. jërëjëf voilà mais ñu ñu mais ñu ànd ci loolu parce que suñu bu ñu xoolee suñu Cheikh Ahmed Tidiane Sy yi temps yii nii dafa am benn benn image boo xamee ni quatre-vingt-quinze la woon fois mais mu ngi ci cité ci virus yi mu ngi ci wax ci virus yoo xamee ni ci pouvoir borom bi la bokk mais dañu nelew dañu benn bi bu yeewum dafay mën na faagagal monde te sew na bët du ko gis pourtant exemple jote jote na foofu exemple pour bu kew kew boobu amee li solution bi mooy ñuy faju tey di ñaan. d'accord jërëjëf jërëjëf ñu ngi rafetlu Abdou Daane la. voilà donc je voudrais juste revenir par rapport aux interventions des professeurs qui ont eu à intervenir boo xoolee un mhm. les interventions des professeurs di nga xam ne par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, l'État aujourd'hui en rapport avec euh, les services concernés so ñi ngi jël. disposition yi nga xamante ni ñi ngi def tout pour kar li nga xamante ni mooy feebar. Mhm. je pense que loolu moo gën a am solo parce que euh, mbir bu ñëwee. Mhm. je pense que mooy comme li nga xamante ni moo am muy une pandémie boo xamante ni mën naa ne euh, sànq rek dégg naa benn professeur bi ko wax lëjël na professeur Seydi moo ko doon wax lëjël na àdduna bi yëpp. Mhm. li gën a am solo mooy li nga xam ne mooy l'État jël d'abord les dispositions. pour faire face et pense que jël disposition yi pour faire face mënut a passé déjà am sur le plan euh, réglementaire le président de la République son gouvernement jël ay disposition à travers l'Assemblée nationale ñu interpellé leen pour ñu jël yenn disposition yi ba pare le ministère de la santé avec le corps médical jël disposition yi nga xamante ne nii les malaat yi nga xam ne dinañ leen déclarer ñu mën a jël leen en charge en attendant maintenant de voir exactement chaque jour l'évolution des cas ou bien l'évolution de la pandémie afin que cette euh, évolution-là puisse être stoppée au fur et à mesure maintenant di déglu nag bu baax aussi les recommandations des médecins les recommandations ñi nga xamante ni ñoom ñooy la seen xel màcc dem ci mbir moom bu ñu ko respecter je pense que ñun ñi nga xamante ni ñooy les populations li nga xam ne moom mooy pandémie bi yàlla mën nañ ci musal et je pense que loolu moom mooy li nga xamante ni moo gën a am solo il faut dire la vérité aux population continuer à les sensibiliser ba pare xool matuwaay yi nga xamante ni moom moo war le moment bi nga xamante ni mooy instant te bi nga xam ne moom la ñu war a jël. pour que. ñu mën ko jël afin que neuf minutes moo ñu dese donc damay jox euh, docteur cinq minutes après ma ñëwaat yow aussi pour le le la fin docteur euh, sànq ba may euh, jël kàddu gi maa ngi naan maa ngi lay laaj ay laaj maa ngi naan gis nañu également ñi nga xam ne ñoom maanaam feebar bi gën a xaw a faagaagal mooy ñuy faral di tuux cigarette ñuy faral di naan sàngara lu tax loolu. waaw jaabi en fait feebar bi seet dañ ko seetlu constat la. Euh, que ñi nga xam ñoom la gën a sonal maanaam ñi nga xam ñoo dem ci cas grave yi cas grave mooy cas yi nga xamante ne nii day évoluer ba réanimation comme ni ko seen waxee sànq mooy ñi nga xam ni dañoo am problème mu diabète mm. problème mu tension toxkatu cigarette yi comme ni nga ko waxee ñi am problème ree ak mais ñi surtout seen état dafa dafa stable woon dafa stable woon parce que tout simplement dañu gis ne ñooñu seen système immunitaire maanaam li nga xam ne mooy seen euh, système de défense yi leen war a aar dafa faible dafa faible déjà donc bu fekkee virus bi dafa ñëw fekk fa benn état système immunitaire boo xam ne euh, faible na amul doole mu fagag la day gën a gaaw day gën a yomb moo tax ñuy ñaan tamit euh, patients yi nga xam ne ñoom ñooy am problème yooyu que c'est ou jamais de se de stabiliser di fonk seen garab yi ñu leen joxoon tukkat cigarette aussi instant yi jot na ñu arrêter cigarette bi parce que instant yi nit ñëpp benn problème lañu am muy coronavirus bu jógee fi déjà ñu bañ a feebar et en plus ñu jublu ci leneen parce que routine bi dafa metti boo xëyee suba avion du daw euh, bato du daw économie du daw taloo dem banque taloo dem dara looy wax mooy nu may muccee ci feebar bi ba jant so donc ñi ngi ñaan tamit ñooñ ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def ñuy tox cigarette ak ñi nga xam ne ñooy naan sàngara ñu wàññi ko ñu arrêté ko laay wax sax pour ñu mën a mucc ci feebar boobu ñi nga xam dañu am tension ñu jël seen garab docteur garab bi su ma ko tàmbalee dama koy jël sama giir dundu phrase boobu dañoo bëgg mu jeex jël benn doom giir dundu moo gën feebar sa giiru dundu te gis nañ tension mi fagagale mooy AVC jàpp roño jàpp xol jàpp ay gët jàpp tànk hmm. donc jël benn garab à vie moo gën loolu fuuf ñu ci profité defaale sensibilisation boobu pour les asthmatiques asthmatique yi aussi loolu waaw pour na mooy ñoo ci gën a mën a wax mais c'est dans même cadre surtout que asthme Sénégal ñi am asthme du ñu faral di def faj seen asthme maanaam traitement de fond traitement de la crise rek la ñuy def dañuy xaar ba fat soog a dem ñu ngi leen wax pour ñu am suivi bu baax euh, am traitement de fond de de la maladie asthmatique bañ a xaar ba am asthme aigu grave wala crise soog a jublu ci faj bi bu boobaa day daal di xaw a doy waar. feebar bi góor yi lay gën a faagal wala jigéen ñi sànq dégg nañ docteur aussi mu ne jigéen ñi daal gis nañ ne ñu ko moo moo ëpp dafa mel ni góor feebar bi ci kër gi wala déet. waaw sur le plan épidémiologie boobu sur le plan international gis nañ ni góor ji la. mais après Sénégal euh, si données yi ñu jox sànq nee nañ 56 pour cent femmes 46 pour cent des hommes gis nañ ni jigéen ñi ñoo fi ëpp tuuti rek xaw xaw nañoo neex méngoo. mais xam naa góor ñi la ñoom ba tey ñoom la rek ñoom ñooy dem fii dem fee fu ñu joxe ko fa macha allah. <laughs> mais je pense que li ab na ci lenn loo xamante ni war nañ ko préciser parce que professeur Seydi mi ngi wax ci lu jëm ci wàllu traitement bi ak. Euh, euh, chloro bi nga xamante ni moom la ñu wax bu vous êtes spécialiste cardiologue nga tey est-ce que ci wàllu automédication bi muy attirer les population amu ci lenn loo xamante ni effet indésirable la war a man doon waaw moom mi ngi wax ni sax amaguñ effet secondaire mais il y a des effets secondaires qui sont liés à la, à la chloroquine. Uh -huh. effets secondaires yooyu c'est réel au niveau de la société sénégalaise de cardiologie la SOSECAR euh, dañu am ay sous maanaam am na une sous-unité rythmologie nga xam ni euh, professeur Adama Kane moo ko dirigé am na ay sous-unité yu bëri HTA prévention corps euh, interventionnel sous-unité rythmologie bi ñu ngi ciy attirer suñu attention normalement fajukaay bërëb bu fajukaay bu nekk war na am si unité benn cardiologue bu ñu intégré foofu mm. parce que am na ay ay matuwaay yu ñu war a jël bu ñu commencé traitement bi premier jour deuxième jour ba huitième jour ak ay électrocardiogramme ay appareils yu ñuy teg fii pour xool rythme bi nu muy doxee biñ ci gën a fësal mooy trouble du rythme maanaam xol bi ni muy jaabale day day tegatéem bi day jaxasoo te loolu mu ngi am syndrome du QT long maanaam xol bu oreille di contracté woo day daa am rëdd bu muy def ventricule yi contracté mu am rëdd bu muy def bu ñu relâché wu mu muy def léegi diggante rëdd buy njëkk yi ba mujj bi. dafa am benn ab diir bu mu war a toll su ko ëppee rek mën a déclencher lu ñuy wax trouble d'urine bu grave bu ñuy wax torsade de pointe léeg-léeg nga xam ni mën a indi sax mort subite mhm. gis nañ Chine ñu bëri ñoo xam ne dañoo dee si feebar bi ñoo xam ne jotu ñoo egg si yenn forme grave yi ñu amee seen stress bi maanaam dañoo am ay mort subite yoo xam ni euh, incriminé nañ ci euh, forme boobu incriminé nañ ci aussi ay myocardite mhm. maanaam xol bi si waxam mur bi muscle bi yàpp xol bi si moo am atteinte Euh, inflammatoire mu feebar mu am mu def moo subite mais docteur ñun dégg nañ ko mu ne dafay utiliser hydro hydrochloroquine ba pare yokk ci azithromycine mhm. mu ne gis na souvent bu ci boolee quand ñaari associé ko mhm. souvent moom ñu ngi ko jotee ak euh, prescrire yëpp amuñu benn problème ah. waaw man nag loolu suma spécialité mais si li ma jot a xam li <laughs> ma si jot a xam maanaam moom protocole bi mu jël mhm. normalement ak professeur Raoul lu mu découvrir euh, hydroxychloroquine la plus azithromycine azithromycine benn antibiotique la boo xam ni ñoom dañ ko ciy dolli mais pour prévention la surtout des formes euh, bactériennes mm-hmm. normalement waaye gis nañu daal am na effet potentialisateur bu nga xam da koy am donc euh, mécanisme boobu man mënu ma ko expliquer parce que sincèrement leerul sama bopp. il a précisé. mais gis nañ ni en tout cas Euh, moom commencé na neena na parce que lu mu njëkkoon def mooy première phase. Mhm. hydroxychloroquine seul. waa parce que c'était par prudence. dafa prudent macha allah. parce que moom infectiologue la bu xaraj dafa prudent. Mhm. bu defee seul maanaam lu ki attan benn ba pare nga sëf ko. benn brique bi attan naa ko ah mi ngi baax xaaral ma teg ci beneen. mais xëy na bu ñëwoon rek def ñaar yëpp. te xamul conséquence étude parce que bi yàggagul. dëgg la essai clinique yi ñu ngi en cours encore amul du nekkul à double aveugle ndax dama am étude clinique fii benn bras fee mais taluñu ko. Mhm. urgence lañ nekk. pandémie la. c'est infectieux donc loolu la utiliser moom pour def état ba deuxième mi ngi dugg deuxième étape am et j'espère que dina faj dina gën a gaaw incha allah Cheikh état d'urgence bi ñuy wax Idrissa Seck bi ko Macky Sall recevoir au palais dafa génn kàddu yi gaa yi laaj ko mu ni kër buy tàkk buñ koy buñ buñ koy fay mhm. ñu xool ndox mi salte na wala set na mhm. cela veut dire que ni essais yi nga xamante ni tey dafa nekk une vivo une vitro ñu def ko laata ñu koo jël in vitro une vivo pour wax ni war nañ administrer wala waruñu administrer au moins am nañu encore corps médical boo xamante ni am na ci lu mu anticiper. Mhm. mais ci volet préventif bi nga xamante ni docteur daane la fan te mu am solo. Mhm. moo di gis nga tey amuñu ay réanimateurs yu doy. Mhm. amuñu ay spécialiste médecin anesthésiste réanimateur yu doy. parce que personnel de santé bi nga xamante ni qualifié na problème spécialisation yi tout le temps ñi ngi koy jooy. loolu dafa jar tey ci volet préventif. ak tamit dañuy tukki voilà. voilà beneen problème la ñu ndax gi fii moom yaa même pas kenn mën ko comparer. léegi loolu tey dafa jaroon ci lu jëm ci wàllu éducation sanitaire. pour daaneel ma laaj benn laaj lu jëm ci wàllu éducation sanitaire. Mhm. gis nga ay massage cardiaque dañ ci war a initier les population de sorte que ki nekk ci këram nit mën na ko réanimer en tant que en temps de crise loolu ay jafe-jafe la yoo xamante ni mbir yu sew la yu yomb yoo xamante ni yeneen réew yi réglé nañ ko bu yàgg bu ñu jógee si lii. Mhm. war nañ ci war a mën a jàngat te je pense que ni honorable war ngeen su ma juumul assemblée war am au moins budget bu néew boo xamante ni war nañ ko dooleel la recherche te loolu noonu tey waroon na war a mën a dollil ñii nga xamante ni ñoo di suñu chercheurs yi ñu gën leen mën a équiper dollil leen ba li nga xamante ni tey mooy jëm ci suñu anticipation surtout plan de riposte yi ñu war a mën a am naka la ñuy defee faire face par rapport ak d'éventuelles catastrophes sanitaires. D'accord. jox nga honorable kàddu gi donc transition facile lay doon euh, donc danaa la bàyyi nga wala waxal tuuti rek ci lu Moussa wax par rapport ak loolu. mais parce que bon Moussa li mu wax xam nga mi ngi wax ne war la ngeen euh, dooleel mais juste pour budget bi c' est pas l' assemblée c' pas l' assemblée qui donne les budgets mais peut-être on peut faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour jox parce que assemblée li muy def mooy day voter. Hmm. parce que souvent aussi dañuy euh, jaxase ko woy war ngeen jox nangam c' est pas nous mais on peut faire un plaidoyer pour ñu jox la recherche. léegi benn euh, un budget conséquent et je pense que loolu c'est important et comme ni ma waxee rek xam nga yow sa bopp yaa wax léegi kër buy tàkk doo xool ndox mi baax na wala fay na yi ngay wax nii ay yooyu nañ bàyyi ba après. ay recherche s'il vous plaît bàyyi ma rek ma àggale. Idrissa Seck koo xam nga jox xam nga da nga cité nit. Ah. ne kër guy tàkk comme kër gaa ngi tàkk fi mu toll nii nañ fexee nu Covid jógee deme su Covid demee ba pare. après yi ngay wax yëpp am na solo parce que c'est important parce que moi je pense que man li ma gën a intéressé ci doomu aadama mooy doomu adama buy gëstu doomu aadama buy def prévention doomu aadama buy def ay prospective di xool xam li muy wax parce que ça c'est important mais comme jamono ji ni ko parce que même docteur boo déggee question yi ñu koy posé ci bëri day dem ba après li muy indiwaat mooy affaire Covid bi nan la ñuy fexe na parce que c'est ça l'actualité du moment loolu moom mooy moo ñu ñor fi mu ne nii. aujourd'hui infectiologue ak cardiologue moom mi cardiologue la mais tey jii am na foo xam bu ñu fa tollee amatul cardiologue ak xam nga lan moo am médecin ak infirmier ak yeneen pour faire face à quoi léegi euh, léegi léegi honorable lu jëm ah, ci wàllum confinement bi comme jox ngeen sañ-sañu njiiti réew mi nee nañu Dakar Thiès Pikine Rufisque daal boo moytul daal ñoom euh, bokkuñu ci li nga xamante ne moom moo di euh, jàppale bu ngeen bëgg a def te aussi ñiy fay électricité tamit wala ñu ngi koy teggil moo di tranche sociale bu ci bokk waaw non ma loolu dafa dafa am benn confusion hmm. parce que dañu wax ne 552 communes xam nga bu ñu waxee 552 communes kooku euh, Dakar parce que sama waxtu xam nga Dakar Dakar <laughs> Dakar euh. ville la Thiès c'est une mairie de ville Pikine ville la Rufisque ville la Guédiawaye ville la mais les 19 communes de Dakar ci la ñu bokk. d'accord les 3 communes de Thiès ci lañu bokk donc dañu def 552 communes plus une délégation spéciale bu xel Xelkom. donc nit ñi ñoom ñoo def seen addition rek daan ne non Dakar Pikine non non non non Dakar Pikine Guédiawaye yooyu yëpp ci lañ bokk parce que on parle de collectivité la mu tëj parce que heure bi na si na def. yàlla bu baax soxna si fu mu toll nii waxtu bi jeex tàkk ñu bàyyi la nga sànni kàddu pour 30 secondes. je suis désolé ah parce que euh, ñu ngi lay fay bu baax la femme comme on dit. Mm. Euh, di la wax yow Cheikh maa ngi lay féliciter ci sa pragmatisme maa ak ci sa humilité pour dire que seen plateau bi ñun femme au foyer rek lañ mais daf ñu amal importance trop parce que ñu ngeen fii invité ay nit ñu mën a yee nit yi lañ je maa ngi rappeler docteur Alioune Niang ak euh, le le doyen euh, maître Ndoye par exemple pour donner seulement un exemple mhm. donc fii bu ngeen fii poser des questions yoo xam ne c'est après coronavirus alors que vous avez mis alerte coronavirus vous perdez du temps mhm. vous perdez du temps et moi ce que je dis souvent à mes enfants il faut éviter de perdre du temps je reviens à Moussa il est sérieux Moussa je l'écoute souvent à côté médecine parce que xam na am na lu tax ma koy déglu côté médecine mais les questions yi muy posé ci seen plateau bi je pense que war na ko xoolaat war na ko xoolaat tout le monde sait que il est très imprégné des choses de la société surtout le social euh, surtout le social waaw donc je préfère que mu xaar ba yeneen plateau mu siy wax loolu s'il vous plaît et j'aime bien Moussa Moussa yaay laa yaay laa pour doom yëpp allo. ni ma la bëggee noonu laa bëggee Cheikh Diaby bien que je préfère l'attitude de Cheikh Diaby ndax pragmatisme ak humilité. donc il faut ngeen xoolaat loolu parce que vos plateaux la c'est important pour nous même bu fekkee ñun jànguñu torop. Hmm? jërëjëf soxna si rafet nañ see kàddu waaye nag euh, ñu bàyyi tam ku nekk ak tamit gis-gisam parce que c'est important aussi Moussa c'est un confrère il a son point de vue il a sa vision des choses Euh, peut-être man j'ai la Abdou aussi à la vôtre docteur aussi enfin bref on va pas sur ça parce que le plus important moo di xeex bi benn la donc euh, nañ fi euh, fexe buté li nga xamante ne moo di Covid 19 léegi honorable dama lay bàyyi nga daane parce que temps bi nekkul non pour àggale un peu li nga xam c'est que damay bañ ñu parce que bu ñu nee Thiès Dakar Pikine c'est loolu ay ville la wax naa ko sànq mooy dañu wax ne en terme de collectivité locale maanaam xam nga y'a 552 communes au Sénégal plus délégation sociale bu Xelkom mais Dakar les 19 communes de Dakar ci lañ bokk les 3 communes de Thiès ci lañ bokk les cinq communes de Guédiawaye ci lañ bokk 3 communes de Rufisque ci lañ bokk mais c'est juste que dañu def benn kii rek daan ne non ville yi Dakar noonu ñooñ non ñëpp ci lañ bokk amul benn localité Sénégal boo xam ne dinañ la génne ci loolu. donc loolu vraiment léegi yow comme yow ku jege buur bi fu mu toll nii yéen benn décision ngeen bëgg a jël confinement bi da ngeen di ko def par point point point wala euh, bërëb yi ma cité ngeen di confiner wala da ngeen def confinement. waaw non déggoo na xam nga confinement moom euh, fi mu toll nii auto confinement sax moo am que fii ku ci nekk yaa ngi toog sa kër. état d'urgence am na. Hmm. et je pense que ñu ngi continuer di sensibiliser sensibiliser nit ñi li am ba des daal mooy nit ñi. nañu toog seen kër képp koo xam ne amul dara loo xamante ni lu urgent la muy lekk faju wala leneen loo war a def liggéey boo xam ne mun a ñàkk nga toog sa kër. parce que loolu daal lillaahi a rasuuli hmm. nga toog sa kër parce que mbir mi c'est très sérieux hmm. xam nga des nit ñi dañuy def affaire u caaxaan mais c'est pas une affaire simple c'est une affaire très sérieuse et je pense que ñun ñëpp. tey jii war nañu mën a continuer sensibiliser les populations ñu xam ne c'est une affaire sérieuse di rafetlu bu baax euh, jataay bi di remercier encore Moussa di remercier docteur euh, Kébé ak euh, yow bi nga xamante ni aussi yaa ñu invité ci plateau jërëjëf ñu lay ñu rafetlu kàddu yi nga yëkkati Abdou di rafetlu tamit kàddu yi fi docteur aussi yëkkati ak Moussa vraiment bëggoon nañu affaire bi continuer tuuti mais point de presse bi donc tax na 30 secondes rek dollil la benn affaire <laughs> parce qu'on tenait à le dire oui. que nit ñi xam ko la maladie n'est pas la médecine la médecine n'est pas la santé tout tourne autour de la santé et que nekkatuñu ci domaine médical ni urgence santé la ñuy wax la santé est une affaire de tous Bien ça sûr. implique l'économie ça implique la sécurité kon bu ñuy agir wala ñuy laaj il faut que nit ñi xam parce que bu ñu nee matériel médical dafa am fu ñu koy administrer pour jëndi ko fa dépense yooyu noonu dafa bokk ci wàllu santé amuñu intérêt yi lenn lu dul dox ci askan wi li nga xamante ni moom la ñu bëgg te tant que ñu ngi toog ci loolu mën nañoo wax nag lu leen neexul mais ci li ñuy dox ak lii suñu rôle mbirum santé moo nekk fii du mbirum médical. d'accord bu yemoon ci loolu rek Covid bii ñuy wax tout ce qu'on parle tour autour de Covid 19. jërëjëf Moussa préciser jërëjëf Moussa ñuy rafetlu kàddu yi nga yëkkati di gërëm tamit mbokku invité yi taal ngool ngool installé wu na xam na du ñàkk dax ba wan ñu ko quand à l'écran <laughs> parce que baax na tamit le temps juste dax ba du ñu ko woon à l'écran ñu wax rek ne mbokku téléspectateurs respecter les consignes dégg ngeen sànq euh, ce point de presse bi nga xam ne quand même les autorités l'ont fait euh, ne nañu ñu war a gën a mën a insister mooy vraiment la sensibilisation ñu ngi féliciter le personnel de santé di féliciter également euh, toute la presse mi nga xam ne mu ngi def liggéey bu mucc ayib taal ngool dina taxawaat léegi yëggali waxtaan bi buñ ci noppee moom tamit xibaaru benn waxtu yu Moussa dina ñëw ngoon benn Maktar Babacar Dione dina ñëw man tam dina ñëwaat guddi aussi pour euh, toujours continuer la sensibilisation et nii lay demee soobee yàlla ba pandémie bi jóge fii ñuy ñaan yàlla nag mu gaaw fi jóge lool lool lool lool lu mu fi gën a gaaw a jóge rek xeeb nañ ko kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf. Euh,